moom wax ma kii la yar ma wax la kii doon rek la wolof di wax bi waajuram bi muy dikk jamono génn jamono ba am lu toll ci lu jege juróom benn weer Sëriñ Tuubaa day wax ne ma sàmm day noppal na ma ndax ndab la lool maa ci njëkk fekkuma ca dara ma duy ko ba mu fees ku moom nag bi nga fi ñëw dama raxas li woon mu takkoog moom nag takkoo goo xam ne ñeewante gi tax fekk fi waajuram moo ca feeñ ba tax mu bàddil ko loo xam ne bu doon ëpp na wax dëgg ñu ne ëpp na ngir ne mbooleem mag ñi fi nekkoon day ànd ak sëriñ bi mag ñëpp ñëpp nag laa wax fi ñu tegoon sëriñ bi rek fi ñu tegoon sëriñ bi rek lañu ko teg ku ci mas jëm ci sëriñ bi di ko nuy ji boo dajee ak moom ni gisaa sëriñ bi daal di wàññi ko ko ci mas di laaj si ndigal boo dajee ak moom lu mu la ca digal nga naan leen Serigne Touba lii la wax daal di dem def loolu dëkk bu mu fi mas a dem julli fa bu fa jógee ñu barrière ko ne fii Serigne Touba fi julli Serigne Touba li mu wër ci réew mi ci dëkk nagal naa ne matul fanweeri dëkk. naa koy ñetti junniy dëkk yi fi Serigne Touba wu Sëñ Massamba wër te jàppee ne Serigne Touba ko wër loolaa tax fu ne ñu barrière fa ci réew mi ne fii Serigne Touba fi julli waaye yooyu yëpp da ca ëpp Serigne Massamba fa julli waaye nag wax nañu dëgg. ndax Sëriñ Tuubaa moo mas a woote ci soxna Aminta Maram mi mu yoroon waxe day ne ma ba ñëpp ñëw mu ne nag ku ne toog fi ma ko teg te sax ci yaar muy jaamu yàlla ak liggéey te ngeen bàyyi wër bi daal dina gees ko masaa man nag yow kaalaal ma ci réew mi kaala nag mooy wër kaala di wëre baat ngir ne booba eh, résidence surveillée bi mu yàggee a takkool ci loxo tubaab yi ba sëriñ Massamba di naw ba boobu ba ni fi jógee te mu yéene ramu mbindéef yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaay ramu mbindéef yi tax na mu xam ne lii ci moom ak njàmbaar ak bëtin moo tax mu ne ko yow nag wóolu naa nga wër réew mi kon digal naa la ko loolu moo tax ñuy wax ne murit boo mën a téye ci jubbam day bu sëriñ Masamba dul sëriñam it di sëriñ baayam mbaa sëriñu maamam rek ndax réew mépp moo leen dugal ci yoonu murit foo xam ne boroom ak njabara fa nekkoon wala boroomu xërëm sëriñ Massamba fa ñëw tottal ko ngeen dem jébbalu ji ba réew ma bi mu fi jógee nag bàyyi fi ay yoo xam ne fanweeri at ak ñaar lañu toll ak fanweeri ak benn loola moom tax na seex sëpp nag daal di defaraat seenu toogaay mbooloom moom mu àndoon ak moom nag dugg ci kër seex sëpp nag loolu yi moo tax ñu wax ne sëriñ Massamba dafa mel ne gannaaw sëriñ bi yoonu murid bi wépp wépp tege woon na ci loxoom waaye bi mu fi jógee ba fi ay ndaw nag ci la kilifa yépp seexe bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax yoon wépp dafa tege ci loxoom man sëriñ Abibu Mbàkke sëriñ Abibu Mbàkke moo ma wax ne ma góor ci njàng mi ndax sëriñ Masamba ko bëggoon xam-xam la ne ma yoonu murid bi wépp nag gannaaw sëriñ Tuubaa tege woon na ci loxoom li mu fi teel a jógee ba ay ndaw day moo tax lu bari ci mbooloo mi ne ci yeneeni kër ne kon yoon wépp ci loxoom lay tege loolu nag mbirum baatin la moo xam ne bu la nit doyloo ba denk la dara ba fi njaboot faaw war nga koo delloo ba mu jeex moo tax soxna Amin Daamar wax ma ne ma sëriñ Masamba nee na liggéeyam bii mu liggéey yaatu na lool te seetlu lool waaye ba ca kanam ba ci ay doomam yu mujj ay caatam wala ay sëtam lépp dana feeñ ba dootu ump mel ni moo tax ñuy wax ne bu ñu ba ci mujj Cheikh Massamba rek lees di waxtaane ndax na ku may wax ne da ngeen di faral di def bu ngeen di waxtaan ci Serigne Massamba day di wax xar baaxam yu bari yooyu ko saa borom jagleeloon te loolu gannaaw mu ne su ko rey ba ca jariñu wax dëgg bu sañoon du ngeen ko di wax nit dees di wax ca moom jikko yi yiw ya nga xam ne mënees na koo roy ma ne ko ah, waaw man day boo gisee ñaaree ma di ko faral di wax dama ciy jublu dagg nit ki rek ba mu gën a gëm ndax boo ko nee lekk naa lekk nga naan naan naan li fekk li ngay wax man na ko wala bu jógee man koo def lu ci man a dolli ko positif du fa am ak ngëm-ngëm ndax ñëpp topp Sëriñ Tuubaa topp yonent bi li yonent bi xar weer wi tàllal loxoom ndox di génn dekkalu de yooyu ñu daan nett li ci moom xam ne kii am na lu mu wuteeg mbindeef yi lu mu wuteeg mbindeef yi ah te li fekk bàyyi wuñ ko nett li ci yonent bi ba nëgante nit ñaa ngi koy nett di ko bind di ko nettali ci Serigne di ko bind ah ma it wax dëgg duma ko man a bàyyi nettali Serigne Massamba di war koo bind it nag ne nag demees na ba waxatuñu xar baaxu yàlla wala astaxfirullah wala xar baaxu Serigne Touba wala xar baaxu yonent bi bu boobaa it ma xam ne doy na sëkk nag bàyyee wax xar baax Cheikh Massamba dogal sama am ñetti xar baax mu am junniy xar baax ba noppi nga ne wax daal du ma ko mën a nangu wax dëgg yàlla waaw noonu mooy Cheikh Massamba koo xam ne mook Serigne ba bokk wenn waajur waaye sëriñ bi ray xarum tuddam tudde ko bi mu laajee ci xëbru bi waajuru mu ne ko tuddeel ma ko sama sëriñ daara boobee mu tudde ko maamam jooju di Seex Masamba Anta Ceebo Jóob moom fan la fekkee pataar la bari wax pataar mu ngi ci wetu Njaañ moom Njaañ ñetti kilomètre rek la jëm penk kon ci njàmbur la gën a dugg tombé man at 1882 euh, euh, at mi yoonu murit sosoo la la loolu yi ca euh, Mbàkke Kajoor at moom la 1882 ci la yoonu murit sosu Euh, mille neuf cent quarante deux it la jóge jamono déwén sa la fi maam Thierno jóge gannaaw déwén sa sëñ Modou Moussa moo fi jóge jóge maam Thierno te maam Thierno magee na ko ñaar fukki at sëñ Massamba juróom benn fukki at ak ñaar rek la dund taarixkat yi bind date de naissance yëpp waaye dañ ko ci muy ko amoon solo koo xam ne seex euh, euh, sëñ Moulay Bousso bu sëriñ Mbacke Bousso wax nañ ne mooy historien murit bi dàqoon a jàng te gënoon a xam histoire ci yoonu murit waaye na ko xasida yu bari xaj na nag euh, bi may jóg jotuma woon a waaj ndax damaa jóge àll rek teew fi li ma bëggoon ci pàggu ji wax ne dama koy wax mu ànd wax mbind mi ñëwut waaye mën naa ko wax ci walla bu beneen yoone walla ku fi jógee bëgg a xam li may wax fan laa ko wér ma walla yu sëriñ mu laay bu sa day wax ne ci xasida ga am na ci bind bu gàtt day wax ne moom sëñ Massamba day gannaaw bi mu niroo sëñ bi ak mbaax gi ak daan tax moom dañ dem na ba bii sayxul xadiimu xadan yu baax yi kiraaman saa faxarul kiraam yi moom day bis pénc ak li sëriñ bi di bari barile barile moom Masamba mii lay yëkkati ndamoo ko ci mbooleem góor yàlla yi mu àndaloon loolu sëriñ Malaay Buso moom sëriñ Mbàkke Buso bokk ci ay taawam te bokk ñu dàqoon a jàng ci yoonu murit xasida ga gamu way muy way yu baree bare yoo xam ne way bay bay wu ne noonu la yéemee ñëpp am na nanu ko mi ngi ma denc wax na ci loolu yi ah, kon liggéey bi nga xam ne sëriñ tubaa euh, am am yi nga xam ne am na ko damay faral di wax ne boo bëggee wax ci Serigne Massamba tam gàtt da ngay wax ne Serigne Touba daal juróomi yëf la am sëriñ tubaa Touba jëmmi boppam ji la am ak ak njaboot nit ko ne am nga ak njaboot ak am métier nit ku ne mooy terloo ak dëkk nit ku ne am nga foo dëkk dëkkal fa sa njaboot ak barab bi ngay jaamoo yàlla nit ku ne am na barab booy jaamoo sa borom mi la bindoon ngir nga jaamu ko may wax ne taqoog jëmmi sëriñ boobu de moo ci man ñëpp ndax yàlla dogal na bu ku bi ku ne dëkk sañcee ab dëkk mu xumb lool moom dafa taqoog sëriñ bi ba sëriñ bi digal ko mu sañc darul mu dëkk euh, sos darul karim daanaka la lañuy wax ay juróom-benn weer dafa toog mënta tàqali ko sëñ mu daal di dellusiwaat ba sëriñ bi làqu fekk bàyyil na ko ndigalul di wër réew mi ci wër boobee la sax ba ni mu làqoo kon mësul doog fenn loolu tax amul woon benn dëkk boo xam ne da koy sañ léppam sëriñ la ko jeexal may wax ne taxoo jëmm ji day ba gisu doo jëmm ji kenn sa borom san nawle bu dee dem sañ ci dëkk ku def loolu day taxoo jëmm ji yaa ci man kon jëmm sëriñ Tuubaa jooju moo ci man ñëpp Tuubaa gi sëriñ bi dëkkoon dëkkal fi njaboot gi ak jumaa ji it bi sëriñ bi làqoo la ne ah man kat sëriñ bi dem na ci dëkk ba maa ngi ko fekki sañc Tuubaa booba daanaka am sebale si naan ndox amul sawar amul dara amul noonu la def ba tubaa xumb tey jii bokk ci njënd yi gën a riñ ci àddina bi mosu ko génn njabootam gépp foofee la ñu màggee jumaa ji it sëñ Modou Sa da ko ñaanoon ne ko takkool maag liggéey bi di fi toog ndax ku la gis rek day mel dëgg la sëriñ bee toog su ko defee pastéefam dara du ci wàññi ko loolu yi moom la def ba ni liggéey ba ni mu fi jógee njabootuk sëriñ bi it muy taalibe doom yeeg donga yi ñëpp mooy njaboot li sëriñ bii yilif lépp ni mu ci mën a ñëpp ni ma koy tënkee mooy koo xam ne mosulaa am poos ci sëriñ Moussa Ka ne wërsëgam bari ba bu doon tabax lu dul màbbu lay tabax te bayu benn dërëm néegi ñax suñ fol day wax ne sa bàyyi ma sàmba néegi ñax rek lekk la fi bàyyi loolu yi koo xam ne loo ma sa am joxe ko jox ko te ku njëkk a ñaw pirdu baak pël baatiyam kooku xam nañ ne taxawu njabootu nit wax dëgg yàlla yaa ci man ñëpp kon sëriñ bi juróom yooyu mu am sëriñ Massamba ci man bi ko ñeenteel nag nga xam ne moo ko juróomeel ñeent yaa ngoo waaye bi ko juróomeel daay wax ne mënantewu ci ndax wax nañ ne am nañu masoon a sàkk ñu def juróom benn weer ci Daaru Salaam di sotti xasiida yi waaye sëriñ bi ci boppam dafa mujj ne ko mbooleem mi ngeen bindoon lépp boole ko nga bindaat ko melnum yow am na ñuy wax it ne sëriñ Massamba moo maas xasaayid yi xasaayid yi Euh, maas ko daawul demee noonu Serigne Touba daf ko daan bind mbind mu sew rek jox ko ko mu bind ko yeneen ñaari yoon yoo xam ne mbind mu dijj lay doon mbind mu dijj moomee nag lay maas waaye mbind mu sëñ bi mu sew ma kenn du ko maas moom daf koy barkeeloo rek muy ab day mu denc ko looloo yu bari daan sàkk ay mbind Serigne Touba ci kër Serigne Massamba mbind yu dijj yooyee mu daan maas nag moom la daan jox sëriñ bi denc benn benn ba nag mu ne ko génnee ko bu dee xasida guñ war a bi mokkal ak jàng génnee ko jox ko mbooloo mi kon li bind li mi daan bari bari nekk da koy bind yaari yoon ba noppi dog koo maas waaye yéen maas rek ngeen di wax comme susul bind mi lam ca def bañ jàng moo tax ñu ne maas waaye nag fekk copié ko ñaari yoon nag muy coono bu dee coono bi nga bëgg xam daal noonu lay baree da koy bind euh, ñuy wax it ne am na ñuy wax ne ah sëñ Massamba kat gannaaw sëriñ Tuubaa màgg ne ko fanweeri at te sëriñ bi Tuubaa daana bind lu mat yaar fukki at njëkk sëriñ bi ñëw jamono wala fukki at sëñ Massamba di ñëw jamono ndax loolu la ci arafkat yi sëñ Masamba def doog a noppi njàng kon sëñ bi daal bind na fanweeri at day mel ne sëñ Masamba doog a tàmbali di liggéey ak moom ci xasiida yi kon xasiida yi am na ci yu ko magee ñaar fukki yoo xam ne maasu leen Sëriñ Tuubaa tukki na fi géej juróom-ñetti at yu manqué na fa lu bari kon loola it maasu leen ñooñu dañoo gëstuwul bu baax a baax waaye mag muy tukki ak mag muy liggéey lu sànni la mu liggéey ni mbir mi demee daal damaa indiwul waaye waaye sëriñ Moussa Ka way na ko sëriñ Mahmoudan Diop dafa wax ne sëriñ Mahmoudan Diop dafa wax ne sëriñ Touba dafa masa naaslu mooy xalaat bu baax a baax jël bit këyit ak xalima bind mboolem ay bëgg-bëggam ci àddina ak alaaxira ñaan ko yàlla boromam gas ko ba mu xóot suul ko mel na ko bind leetar yàlla wax ko mboolem li mu bëgg mu ko defee yor yor gannaaw toog sànj sëriñ Masamba nuyu ko jébbal ko këyit sëriñ tubaa ubbi këyit woowa fekk muy wee mu suuloon mu di ko ci ñaan ne ko yow mii nga xam ne ñaan nga yàlla lépp ba may la lépp mbooleem lii nga ko ñaanoon suñ tubaab yi wax ne mu tàmbalee ca baat ba njëkk a ba ca baat ba mujj ñaanaat naa la ko loolu mooy képp sam yalwaan rek maam li nga ñaanoon lépp ba defee mu jëlaat lépp ñaanaat la ko te as gor loo ko may da koy àtt na maye hmm. ah noonu la ko suñu Mahmada nettalee de sëriñ Moussa kay waaye na ko noonu damaa teewlu wayi léegi laa ko doon gës ndax bëggoon ko jàng ci daaj bi ma ko daajee waaye dama ko bàyyi kër gi wax dëgg yàlla loolee nag la Sëriñ Tuubaa bi mu ko jàngee ba noppi mu dugg ci néeg bi laaj ne ko suñu borom ne ko kii mooy kan mu ne ko ah kooku day mooy Masamba yéemu la kenn ci ñi nga am te it mooy sa njiglaay it nag lépp loo xam ne mas nga ko liggéey ca bëgg ca barke wala mu sekki sakkan na ko wax mu raay ko ci la ko wooyee na ko nag li ma bindoon ca jéeri jaa ngi nii li ma bindoon ca géej jaa ngi nii di jàll bu baree bare yéen la mag yi yàlla leen mag sottil ma lépp yàllaa ko wax ngir saa def ci barke. moo tax Serigne Moussa Ka di wax ne xasaa yi daal ay picc lañu woon yu ànd ak i donc waaye amuñu ruu maanaam mënuñoo lekk mënuñoo naan bi leen sëñ Massamba laalee mbaas yi ñu doog a ami naaw mën a nen a jur. loolu yi mooy Serigne Massamba kon liggéey bu mu rëy ko Serigne Jéeri waanaan sugu ne ñi ànd ak Serigne ñëpp day xam naa seen daraja fa sunu boroom waaye ki nu ciy wax Masamba de bu tubaab yi demoon ba nar a Sëriñ Tuubaa jekk ko ba mu jébbal leen loxo ne man ngeen maa def lu neex man ngeen ma koy wax Masamba de bu ñaanee yàlla saa borom wàccee malaaka fa saasa ñu xet li Sëriñ Tuubaa mu mucc loolu sëñ jëri waa daal suko ko ko nettali ci mbooloo jërëjëf kooku koo xam ne yor na soxna ba am ca njaboot jox ko Sëriñ Tuubaa sëriñ bi yor ko ba am ca njaboot Sëriñ Tuubaa it yor na nit ba am ca njaboot di dund jox ko jox ko ko mu am ca njaboot sëriñ Touba yi yor na nit ba làqu fi batale nañ ko ko jox mu sëñ Modou saa yët ko ko ci ndigal loole mu am ca njaboot. xaalis Mor Anta Sali nga xam ni mooy wajuru Serigne Touba ñoo ko bokk waaye toofeex ji am ci Serigne Massamba nag mooy liñ naan grammaire arabe di naxwu téereb maamam la Sénégal gépp doon bind doon jàngee ndax Mor Khoudia Kumba mi nga xam ni mooy maamam moo ko moo bind. moo bind téere bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, téere grammaire arabe moo ko njëkk a bind ci réew mi àddina sépp li ci jàng réew mi yëpp li ci jàng kooku nag ma sambante ceeba mu doon pend bu yow ma tarandu ma mi sanc kokki kon yaakaar naa ni sëriñ ma sàmba mooy réew mi mooy Sénégal ndax ñetti nit moo dox digganteem ak suñu maam ji nga xam ni moo sanc kokki maamam Matar Ndumbe moo jàngal maam Maharam ba ber ko euh, Masambante Ceeba maamam moo jox woy juróom wird muy sëñ Mor Sali ñu tuddee ko maamam kon sëñ Masamba génnul fenn diggante kokki mbaam ak askanu Maharam ñu ngi ziyaare bu baax sëtti sëriñ Masamba yi tàbb ci jotaay bi soxna Sooda Mbàkke moom sëriñ moo Modou Fati Xëri di suñu xarit di jàmbaar di kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa fee ci Kër ma Massar Euh, ak soxna May Mbacke moom Serigne Mahmadoune Diobbe ak euh, soxna Khady Mbacke moom Serigne Mam Mor moom ma Massamba ak soxna Astu Mbacke moom Serigne Mam Mor moom Serigne ma ak soxna Daba Kan moom soxna Issa moom Cheikh Massamba ak soxna Aji Kebe moom Serigne Cheikh moom Serigne Modou Fati Khari soxna aj Gueye moom Serigne Cheikh moom Serigne Modou Fati Khari mu ngi koy ziare bu baax a baax di ziare mboolem njaboot gi euh, wàcc ci jotaay bi lépp Serigne Sam. mu mel ni dégg nga fi Serigne Oweysu bàyyee mooy gane ak àddina Serigne Massamba 1882 maase ak yoonu Mouride kon Serigne Massamba ak yoon ñoo maase waaye bari na fu ma Massamba jaar ndax sëriñ ma Massamba ñi jaxasoo na moom ñëpp xam nañ ne alim bu mag la woon di boroom xam-xam bu mag di abid bu mag. kon lan nga ñu sofe ci Serigne Oweysu li mu wax fi mu jaar ak lan nga ñuy indil ci njàngalem ma Massamba ak ci jikko. Euh, jërëjëf sëñ Eh, barakallahu sëñ Uwaysu leeral na lu am solo lu yaatu eh, dañuy dellu ginnaaw tuuti rek ci li sëñ Uwaysu leeral ci cosaanam ci gàtt ndax noonu nga ko junje rek maamam bi nga xam ne moom meññ soxna Aysatu Jóob mm-hmm. muy sëñ Mor Xuja Kumba Jóob xam-xamam ak na ci taalib muy téere boobu ngay junj. muqaddamatul kokki mu tuddoon al muqaddamatul kokkiya. léegi naa xam-xam nag dem ba taalif ciy téere ba jànguwaay ci réew mi ci gënoon a mag ñu bari dañ ko di ko jàngale. kooku maami Serigne Massamba jurum moo def loolu. sëñ Mor Khoudia Koumba Diop moom it Massamba Anta Ceebu mi ko jàngal na Mamor Anta Sali. noonu ma dun pend bu ya ma du moom i sëñ ci kokki loolu li muy tekki rek mooy. lu suñu borom wax ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi suñu borom buy waa feeñal lu baax da koy waaj ci lu yàgg cosaanam ci wetu waajuram mu jigéen rek wane na ne xam-xam ak diine ak ngor ci lañ leen xam muy néegub kokki foofu doy na ca waaye mu am xar baax nag ak tawféex ci feeñam mooy sëriñ Tuubaa jox ko aw tur te sëriñ bi dafa néewoonu jot lool dafa ñàkkoon jot ba ak njabootu boppam sax li ci ëpp sëriñ tudd leen danaa yable rek mbaa mu batale waaye sëriñ Masamba tawféex mënta weesu sëriñ Touba ne tuf jox law tur foofu la tawféexam tàmbalee la ca topp muy li sëriñ Uway su doon junj léegi ci loolu mu wax ne sëriñ Touba ko defaral ndabam loolu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo moo ko wax te moom yoonu murit bi muy sosu fa la ko fekk te sëñ daam Abdourahman Lo doy na sëkk ci ab cër koo xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doy la woon ci njabootuk boppam loolu doy na ab cër sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ko laaj mu waxtaan ak moom ba agsi ci sëriñ Masamba sëriñ Abdul Xaadir ko nettali sëriñ Moustapha doomam mu nettali ko sëriñ daam Abdourahman Lo dafa wax ne mboolem nun ñi àndoon ak sëriñ bi ku ci ne bi ngay ànd ak sëriñ bi sa ndab am na lu ci ne woon waaye sëriñ bi bi mu yëree sa ndab la ca wërta ne lépp da ko ci ak génne duyal la ko ba mu fees ak leer daan ne ko sëriñ Masamba nag loolu fekku ci sëriñ bi moom sëriñ bee ko defaral ndabam duyal ko ko tawféex jooju la ko yàlla defal. njëkk ci moom mu waaw loolu ki ko seede dañuy xool ki ko seede cëram muy sëriñ Abdourahmane Lo hmm. ndax dana feeñ ci waxtaan wi. ne liñ si nar a waxtaanee incha allah li ci ëpp seexi Serigne Touba ak doomi Serigne Touba ñoo ko seere ci sëñ Massamba ci loo xam ne dañ koo bind loolu dana feeñ ci waxtaan wi ci kanam waaye li Serigne Oys wax léegi ci xaside yi ak feeñal na ci lu yaatu Serigne Touba lépp lu mu bëgg day waajal koo xam ne na mu ko bëggee dana ko ni mane ci biir ak ci biti xaside yi. day laaj xam-xam bu mat sëkk laaj itam ak sell nga bëgg koo mën a féetewoo di ci liggéey kon mu mel ne sëriñ bi jaarale na ko ci ay jaaruwaay jaaruwaay yee mooy ki dayoon sëriñ bi ci njabootam muy sëñ Ba Abdourahmane sëriñ Touba ci boppam moo dalal sëriñ Massamba alxuraan ab diir mu teg ko ci sëñ daam loxoy sëñ daam Abdourahmane mu àggaleel ko sëriñ bee ko saytu itam alxuraanam ba mu doy ko li nga xam ne mooy tàmbalikaayu xam-xam bi am solo ci lislaam muy tawxiid fiq ak tasawuf sëriñ bi ci boppam moo ko jàngal moom ku tedd te loolu defe naa mooy fondation bi gën a dëgër ci xam-xam naka noonu sëriñ bi jaaral na ko ci ay jaaruwaay waaye lu ci mën a am rek da ngay gis ne loxol sëriñ Touba moo njëkk ci moom mujj ci moom koo xam ne nag mbiram ci njalbeenam ba ci ak mujjam dara da cee génnul sëriñ Touba kooku sunu boroom feeñal na léppam te moom tawféex jooju la ko yàlla defal su ko defee ginnaaw bi ko sëriñ bi waajalee nag mu jaar ci jaaruwaay yi ba peeg mbooleem xam-xam yi sëriñ bi da koo sóob ci yoonu tarbiya da koo sóob ci yoonu tarbiya ndax ni ko sëñ Oysu waxee rek muy lu olof nii na wax ndax olof ñaare day lu baaxoo rek tàmm loola day mel na loola mooy liñ naan lu sëñ bi bind moo ko maas loolu waxin la sëñ way su leeral na ko léegi waaye daawul maas te daa yaxalaan bindum sëriñ bi maas ko def lépp ci ay gaal yi boppam boole mbindum sëñ bi ci yeneen gaal. da koy sotti war waaw te loolu dana gën a yaatu ci kanam. waaye ak tarbiyaam faaw ñu dugg ci tuuti. mu mel na nag dañoo toll ci jamonoy communication àdduna bépp dafa xëtaloo te lislaam kenn du ci def loo xam ne da koy sos mu mel ne jataay bii ñuy def nii dafa am cësluwaay bu wér ci na boo jàngee alxuraan sunu borom dafa wax yonent bi ne ko laxat kaana fii xasasiyan ibratun li ulil albaab yonent bi sunu borom da koy nettali yonent ya ko jiitu woon ba yàgg mu ne ko na nga xam ne li tax ma la koy nettali dama bëgg saxaaba yi ànd ak yow ak jullit ñay ñëw ñu jële ci ak waaru akum njàng am feneen fu mu ko waxee ne ko faqsusil xasasa laallahum yatafakkaroon yow Muhammad del nettali saxaaba yi ak jullit ñi la jiitu woon xew-xew ya ndax ñoom ñu jële ci xalaat yu leen jariñ ci seen kanam kon mu mel ne jataay bii ñuy def alxuraan da koo digle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko suñu borom wax ci alxuraan muy loo xam ne ndax dañoo nekk ci tasawuf te am na ñeneen ñoo xam ne ñoom gëmuñu tasawuf waaye ndokk bi nga xamee ne ki nu àndal muy cheikhul xaddim moom wax na ne sunna si yonent bi yeesal ko rek moo doon yitteem. Mhm. te lii ñuy def nag ci sunna la bokk. mooy waxtaane ku jiitu woon nit ku baax ngir jàngati ci ak jaar-jaaram luñ mën a jariñoo. Mhm. ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam siiraam sax dañ ko bind ci ay téere di ko jàngale di ko nettali moo tax ñu mën a xam ci moom dara. waaye ku fekkee jamonoom nekkatu fi kon loolu lépp day tegu foofu. su ko defee sëriñ Masamba ak tarbiyaam te tarbiya dañuy wax ne nit yàlla yi ku ci ne amoon nga programme. programme boo xam ne ca nga jaar jaarale ci say nit. Sëriñ Tuubaa nag bu ñuy seet lan moo doon programme am bi mu indi ci àdduna mooy tarbiya. tarbiya boobu nag mooy li ñuy wax xidma. kon Sëriñ Tuubaa xidma moo doon programme am. ku mu defar rek ci la la jaarale. Sëriñ Masamba ak tarbiyaam leer na naññ ndax képp koo xam ne xam nga dara ci yoonu murid rek xisab jaayante bu wér boobu ak ca Jolof. ku ne dégg na ci ma Massamba loolu day wane kon ne ak jaayanteem wér na waaye mel na ne ak taalibeem nag jiitu woon na loolu ak tarbiyam jiitu na ci yéen jolof ndax moom waxal na boppam ne tarbiyew na sëriñ bi fukki at yu ma sëkk moom sëriñ Massamba te nee na fukki at yi juróomi at yi ci taxawaay laa ko def nee na su ma ci toogee damay julli mbaa may def lu ko nuru kon tarbiya ga metti na kon liggéey la dëkke woon guddeeg bëccëg lépp lu ñuy ab taalibe di liggéeyal kilifaam rek sëriñam sëñ Massamba defal na ko sëñ Tuubaa ci dooleem nee na juróomi at yi ci des ci toogaay laa ko def su ma ci taxawee damay julli mbaa may def lu ko nuru kon mbindum xasida mi sax lu tar la woon ndax ku ne xam na ne mbind moom da ngay boole say bët sam xel say cër yëpp na teg nga boole teewlu mm. loolu na nga di ko def lu ma juróomi at guddeeg bëccëg yoo xam ne boo taxawee jullee tax nga nga taxaw boo ca noppee yàgg ca loola kon tar na jaar-jaari ku tedd ki étape bi nga xam ne moom sëriñ bi rek la woon kenn fekku ko ca mu exil bi kooku moom ku tedd ki rek la woon àndu ca kenn yóbbaalewu ci kenn waaye étape yi ci des yëpp sëriñ bi am na ñu mu tànnoon nekk fa ak ñoom bokk na ci étape bu gànnaar bi. muy ñeenti at yu tegal. ak Ceyeen Jolof di juróomi at waaye étape yooyu ñi ko fekke woon sëriñ bi tànn leen yóbbu leen fa te sëriñ Masamba bokkoon ci bu ñu ko daan nettali taraay ba jéggi na dayo ci tàngooru metti ci xiif bu tar boo xam ne waxtu ba waxtu wa dellu si de woon vingt yoo xam ne ñëbub baraay la leen di jox wala ñëbub dugub pepp moom lañuy mos jàllale ko kubéerug satal ak ndox ndax dafa bokk ci tasawufu nit ki bu ñu koy tàggat ci tasawuf xiif da cee bokk ndax bakkan xiif rek a ko mën a yar moo tax ahlu tasawuf ku ñuy tarbiya ci xiif lañ lay jaarale sëriñ bi tàggat na leen foofu nga xam ne kon ci gànnaar googu sëriñ ma Masamba tarbiyaam gi gën a metti fa la ko defee foofu misaal mi am na foo ko sëñ Musaa Ka di leerale naar bi ko gisoon ni muy dukk dukkee rek diggante sëriñ bi ak dox yi tey sëriñ bi mm. naar bi di laaj sëriñ bi ne ko xanaa kii sab jaam la sëriñ bi na ko subhanallah ab jaam yàlla rek képp ko am kii noo bokk lépp maa ngi moom. sëriñ Masamba wax nañ ne ba mu déggee loolu dafa wut lu bari addiya ju bari jox ko naar bi neexal ko ca kon kooku wane woon na ne ku nangu loon Cheikhul Khadim la joxoon ko léppam te it gànnaar moom ñi ko nett li ñëpp fa traay ba àgg weesu na ko foofa it ci gànnaar googu sëriñ Masamba liggéeyal na fa sëriñ bi lu bari ci wàllu mbind naka noonu ceeyeen jolof bi nga xam ne la xissa bu siiw boobu amee woon muy xasida yi bu ci yemoon rek mu doy sëkk ndax xasida li ci sëriñ tuubaa def te mu wutale ko ñëpp. ndax xasida ci arab moom lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wa sax arab yi daan nañ def ay xasida mooy def ay woy yu mat juróom-ñaari bayit wala fukki bayit am luñ ci jublu loola yàgg na ci àdduna ba bi sëriñ bi ñëwee am na ñu ko daa def waaye sëriñ bi dafa wuute ñëpp ci lépp ndax. bariwaana waa na kuy taalif ay xasida di ca way dégg arab lool wax ja am sens waaye ci biir waye da nga ca leble mbaa nga fay ca borom sëñ waa foofu la wuteeg ñëpp moom dafa wax ne katabtu wa kulli faaraqa zanba wa shirka wa xablu shtaraara bi nee na li ma bind lépp kenn du ci gis lenn lu ma ci de boole lu dul yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi ma ci kenn tooñu ma ci kenn loolu da koo bind te it ku wér mbindam gis ko. dëgg la muy loo xam ne it li mu làmboo moom xasida yi xasida yi sëñ Tuubaa ak jaamu yàlla la ndax mbooleem xasida yi sëriñ bi yii rekk la làmboo tudd yàlla te tudd yàlla alxuraan a ko digle yàlla wax ci alxuraan ne waskurullaha zikran kasiran ak yeneen aaya xasida yi goo ci jàng sëriñ baa ngi ciy def tur yàlla di tudd suñu borom am na ci xasida yi dafa jagoo ñaan mën na cee tudd lu mel ne sindiidi lu mel ne toxfatu xasida yooyu xasida yi ñaan la nga xam ne dafa jagoo ñaan te yàlla digle ne ñaan leen ma mu may leen àgg ci wax ne jaam bu ko ñaanul sax da lay mere moom yàlla mm-hmm. am ci xasida yoo xam ne sant yàlla la gën a jagoo lu mel ne rabbi awsif nii lu mel ne rum naa shukoor alazi bil kaafi wa nuuni nga xam ne ci géej gi la ko taalifee kooku xasida ak sant la am ci xasida yoo xam ne istixfaar la lu mel ne tuxfatul awaa lu mel ne jaalibatul maraaxib mën nañ ko cee boole ndax am na istixfaar am na salaatu ala nabi am xasida yoo xam ne salaatu ala yi la la jagoo lu mel ne muxaddamatul xidma ak yeneen ak yeneen. nga xam ne mbooleem yooyu suñu borom la ci alxuraan te muy yu am njariñ sëriñ bi ndigalul yàlla loolu la topp jël ko roos ko ci xasida yi nga xam ne koo xam ne da ngaa bëgg sant yàlla wala nga bëgg ñaan yàlla wala nga bëgg a jégglu yàlla wala nga bëgg a ci yonent bi xasida yi sëñ Tuubaa yi ci gën loolu rek la làmboo. waaw xat xasaayidal kiram ndax noonu nga ko waxee rek euh, samay xasida kawe na xasida yi ñëpp ñu baax ñëpp. dafa am lu ko waral nag lu tax mu wuuteeg ñëpp ay xasidaam kaw yëpp mooy xam-xam bu bari rek taxul woon muy bind. koo xam ne wax na ne su may bind lawxul maxfus la ma yàlla di wan ma cay di bind kooko ay mbindam du bind borom xam-xam yeneen aktubu naaxilan min al lawxi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin loola lu rëy lu diis la loo xam ne fu ñu koy féetale doyoon na sëkk ab liggéey ci moom àgg na ci di wax ne xasaayid yi min mojisaatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa nee na ab yonent mojisa lay am maanaam la muy def ci jamono kenn da ko dul man ko dul moom mm-hmm. ci xar baax ni ko suñu woy si leere wax na dëgg xar baax dañ ko war di waxtaane dafa bokk ci siira yonent mi alayhi salaatu wasalaam booy nett li siiraam da ngay nett li kéwél gam waxloo mbëtt moom waxloo weer woom xaroon boo ko tëbee ci siira yonent bi rek am na loo wàññi te yooyu xar baax mënu ko weesu doy na sëkk xar baax alquranul karim ji nga xam ne mooy wax yàlla ji nga xam ne moo féete kaw lépp bu ñu demee ba suñu borom jël aw saar aw saarum lëm jagleel ko reñaanu yonent bi muy sóoratul isra yi reñaanug yonent bi ana lu ko gën a nekk kiimaan ak xar baax amul su fekkoon ne xar baax jër te waxtaane suñu borom du jël sooratul isra yi di ko def ci alquran ndax diggante makk ak baytul maqdis ba fii may wax ak yow pour voyager ko temps bu yàgg nga fay def kenn mënu koo def ci genn guddi ci xanaa nga jël vol waaye par la route moom mëneesu ko ba nëgëni yonent bi wax na ci guddi googu jóge na Makka dem baytul maqdis jóge baytul maqdis yéeg ci alburaq muy le coursier cosmique yéeg ci kaw asamaan ci genn guddi dellu siwaat muy xar baax boo xam ne yàlla dafa ñëw confirmer loolu wàcce ci aw saar kon ni ko sëñ Uway si waxee nitu yàlla booy waxtaane mbiram waxtaaneel xam-xamam waxtaaneel jikkoom waxtaaneel xar baaxam ndax ci la bokk loolu lépp it allah dana feeñ ci biir. kon ma Massamba day koo xam ne mbiram day sëriñ Touba ndax Serigne Touba mbooleem ñi ko toppoon ñëpp ku ci nekk defal na la cër boo xam ne sooy waxtaan ci moom da ngay defe ne kenn mënta mel ne kooku waaye bu ñu nee day sëñ Touba nag mooy koo xam ne ku dul sëriñ Touba deful ci moom dara. tawféex ji ma la wax ci njalbeen gi kon dañuy wax ne sëriñ Massamba day sëñ Tuubaa mu sotti ndax lu dul sëñ Tuubaa néewul ci moom ku dul sëñ deful ci moom lenn te li sëriñ bi gënoon a fonk wax ne samay mbóot man Ahmadou Bamba ci xasida yi laa ko denc waxoon na ko te moom la ko féetale woon àgg na ci wax ne maqaamay góor yàlla yëpp yi gën a kawe bi ma koy wut ci xasida yi la ma bi xamale na ñoo tax nga am ko xustu maqaamaatil kiram am na fu ñu wax ne bi yi nii ci sama mbindum ndajoor mi ci laa ko ame kon loolu dara da ko féetewul kaw dafa doyoon sëkk ab cër ci moom su ko defee ay jikkoom nag moom seex Cheikh Massamba li Sayyidatuna si waxoon rek biñ ko laajee yonent bi lan moo doon jikkoom mu ne tekk ba yàgg mu ne kaanat xuluqul alquran li ma leen mën a wax daal mooy rasulullah ay jikkoom daal mooy alquran yàlla wax ne noonu la bëgg ku ko mel boo ko jàngee ci alquran jikko yàlla bëgg mooy jikko yonent bi sëñ ma Massamba noonu la meloon ci ñaar lañ koy mën a tënk jullit piir la woon murid saadix la woon jullit piir nag yàlla mi yabal yonent bi yónni ko lislaam yàlla moo décrit ci alxuraan nu jullit piir war a mel dafa wax ci alxuraan ne innamal muminuuna lazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaayika humu saadiqun yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wax ne gëm nañ ma man yàlla gëm nañ sama ndaw muy muhammad te duñu sikki sàkk duñu dengi dengi mukk waaye la koy firndeel nag mooy li ma leen jox ci alal ak kàttan ak xel ak xam-xam dañ koy jël delloowaat lépp yàlla ak bi yàlla nee na ñooñu ñooy jullit piir ñi ulaayika humu saadixuuna la wax sëñ Massamba foofu la nekkoon te dana feeñ ci ay jikkoom. murit saadixit mooy ci biir lislaam sëriñ bi bi mu ñëwee yeesal lislaam yeesal sunna daf ci xàll yoon woo xam ne moo gën a wér gën a gaaw muy almuridiya muy koo xam ne yàlla ci boppam lay jiital ci lépp allazina yuriduna wajhallahi humul muridun ñi nga xam ne ngërëmul yàlla moo leen gën a ludul moom loolu mooy murit Sëriñ Tuubaa nag mi indi loolu moo jàngale murit saadix nu muy mel wax ne sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw fa ixtiraar asidqu fi mahabbati cheikhi abad summa imtisaalu amri yi xaysu warat wa tarkul intiraadi mutlaqan walaw bi baatini alayhi fi ma xadrawo wa maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari nee na murit saadix ñeenti critère lay am bëgg gi muy bëgg sëriñam moo koy gënal lépp moom lay gën a bëgg ci lépp ak ci ñëpp ñaareel ba fu mu digalul kilifaam wàccee fa saasa du ko yeexe da koy daal di jëfee ci saasa rek ndigal du ko waa du ko waaj du ko am lenn lu ci waaj ñetteel ba mooy lu kilifaam wax mbaa mu def ko du ca gaaral naan bu ko defee woon néeg bu ko waxee woon nii. du diisoo kilifaam déedéet lu mu def rek day ànd ci loola. waaye sëñ bi mënoon na koo defee néeg mbaa mu wax ki nii nee na saa def du ñeenteel ba mooy murid sadiq du am choix choix sëriñ bi mooy doon su am ñeenti critères yooyu yëpp sëriñ Massamba Lambo woon na ko te loolu feeñ na ci moom li sëriñ Uways wax rek ku dem ba jël sa lépp jox sëriñ bi sa njaboot sa lépp kooku wane nga ne yow bëggatoo ci sa bopp dara lu sëriñ bi ku dem ba ñu lay jaawale ndax ab jaamam nga a déet kooku wane na ne dafa joxoon léppam sëriñ Tuubaa desalul woon ci boppam dara ci nu ab murid war a toppee sëriñam. ndax bu desaloon ci boppam dara naar ba du ko jaawale di ko laaj sëriñ bi ndax kii sab jaam la kon qualité yi saadix ak soobu ci sëriñ bi te desalul dara ci jëmmam mbaa ci alalam mbaa ci taam loolu moo waral naar ba di ko di laaj sëriñ bi loolu kon sëriñ ma Massamba daal ci tënk mooy julit piir la woon murid saadix la woon jikkoom yu tàdd yooyu nag bari na ci lool yoo xam ne mënees na caa tudd tabam nga te tab sëñ si Anta mhm. day lu jafe jafe lool te bari njariñ lool. Mm-hmm. ndax sunu borom dafa wax ne. Mm-hmm. garab a ngi ci àjjana goo xam ne. Mm-hmm. bànqaas yi tiim na àdduna. bànqaas yooyu nag nee na ku ca jàpp benn bànqaas boobaa lay yëkkati ba cëppee ci digg àjjana te nee garab googu tabe la tudd. yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax wax ne ku tabe day jege nit ñi lool ndax day am njariñ waaye nee na day jege yàlla lool ndax yonent bi dafa waxoon ne mbindeef yi ñooy njabootu yàlla. ku gën a am njariñ ci mbindeef yi rek yàlla gën laa sopp sëñ Masamba noonu la meloon yonent bi wax ne ku tabee day sooy sawara lool jege àjjana tabam googu sëriñ Moussa leeral na ko ci ay waxam am na fu muy àgg bay wax ne bàccee garab gu lew lewet te meññ tey gaaw a ñor tey tab bi far ne gàññi ku dem keroom roonu ko for ay junni ku yéeg ci kaw bàcc ko am ñëw yónni kon loolu leer na naññi tabe googu nag yemutoon ci alal rek doonte tabe ci alal am na solo lool ndax te fi ne àdduna bu dañ mukk di soxla loolu muy solidarité ak générosité ci wàllu alal waaye tabe ci wàllu xam-xam itam xam-xam bu ñuy jàng ci lislaam tukki yi sëñ Uwaysu junj léegi tam ko daan def ci réew mi li taxoon sëriñ bi yabal ko te ñëpp ne fi mooy waajal na ko ci xam-xam bu mat sëkk boo xam ne wóor na ko ne bu wëree ci réew mi ku mu dajeel doo ko xeet ndax ku ko xeeb xeeb sëriñ Tuubaa xam-xamam mate woon na ko ci mbooleem li ñuy jàng ci lislaam ba daje naag ay kilifa yu mag ci yeneen turuq waaye xam-xamam tax na ñooñu sopp ko ba daan ko ñaan at mu ne ngan mu leen di gañale bari na lool te xam-xamam boobu nag li waraloon ku dajeeg moom sopp ko mooy ku mu dajeel jataay lu mu gàtt gàtt sëñ sàmm dana génn ci xam-xam yoo xam ne dala ko yéene muy lu am solo tabe ci xam-xam mm-hmm. te wax nañ ne xam-xam ku ko yàlla jox nga nay ci bala ngaa faatu yàlla dana la nattu natt bu tar lu am solo la waaye xam-xamu baatin nag bu ko yàlla def joxoon mu fees ci dell nag tabe ca lool lool tukkeem yooyu daawul yem ci xamle lislaam rek daawul yem ci yaatal yoonu murid rek waaye kum dajeel sa bët xonq te baatin war koo faj fasaasa la koy faj ci lu gaaw def na ko ci ay dëkk yu bari yu ñu xam ak yu ñu xamul bokk na ci liñ ci teg suñu bët dox ba ay nit nett luñu ko muy fii ci wetu Tiwaawan dëkk bu ñuy wax Pambal 9 kilomètres de Tiwaawan mag ñi ci dëkk baa ma ko nett ni teen baa nga ci digg dëkk ba àgg nañ ci teen bu ñu gas mu mel ne dafa am lu gàntal loola lu ñu xam nag def nañ ko sëñ Masamba jaar fa yor yor julli ca digg dëkk ba mag ñi seen ko daw ñëw ci moom siyaar ko wax ko seen jàmbat ko la leen jafe sëñ Masamba ne leen yët ma xeer woo xam ne fa ngeen mujj gas ngeen ko jële ñu indil ko mu ne nganam nganam tëf ne leen tàbbal leen ko ci biir tàggatoo ñoom jàll ndax foofu taxu ko woon a jug dafaa jaaroon. ci xaaju guddi lañ dégg lu explosé dëkk bépp yow taal seen lampi pétrole ñu dégg ndox may bax baxi ci digg dëkk ba. wallaahi teen boobu ba léegi ni am na ndox ku fa dem ñu wan la ko. mag ñaa ko wax ma ci digg dëkk ba dem nañ ba bi forage di am ci réew mi ñaanam gu nangu googu ak ijaaba googu dem na ba dëkk boobee forage ba fa la njëkk def forage ay dizaine de village ba nëgëni ca la ñuy naan. kon da daan tukki tabe gi da ko daan wane ci alalam. da ko daa wane ci xam-xamam bu ñuy jàng ci lislaam waaye da ko daan wane lu bari nag ci xam-xamu baatin te yooyu yëpp nag doomaadama yi dañ koo soxla kon tab googu rek ci laay dugg tuuti daaneel foofu ba dellu siwaat ci kanam insha allah barakallah sëriñ euh, saam lazan ba am na solo lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni aljannatu daarul asxiyaa yi ñi tabe àjjana mooy seen kër ëllëg tabe nag am na solo lool waaye nag euh, ma sàmba li nga wax lu lu lu lu am solo ndax xasiday sëñ Tuubaa yii ku mën a xam li sëñ Tuubaa yi wax sëñ Tuubaa rek ndax sëriñ Tuubaa moom ay waxam ki ko mën a xam yaakaar naa ni sëñ bee la dimbali ba nga mën ko xam sëriñ Massamba nag yemul woon ci maas xasida yi waaye kon dafa mel ni da daan bindaat lépp soog koo maas ba nit mën koo jàng te Serigne Touba moo ni yàlla xamal na ma allamtani hayba hatta sirtu muntabihan anta al-alimu allazi allamta yàlla yàlla xamal na ma lépp lu nëbb kon dafa mel ni ma samba day Serigne bi ci biir ak ci waaye ku jaxasoog njabootu Serigne ma samba danga xam ni loolu loolu daloon ma samba moo leen dal ndax ma moor Mamor moom ma samba dañoo mos a bokk jotaay may waxtaan ci Serigne Touba di waxtaan ci Serigne Touba ba ci yàgg. ma tudd sëñ ma Masamba mënu ko ye mënu ma yemale ko ci sëñ Touba rek man alali sëñ Touba la sëñ Masamba dafa seey ci sëñ Touba ku ma bëgg a nax ci sëñ Touba nga may naxe te ñoom ñëpp noonu la ñu mel. kon sëriñ Masamba xaal jama amoon ci sëñ Touba ba Cheikh Mamadou Moustapha naan ko liggéey jumaa ji maa ngi lay ñaan bis bu set ngay xëy si ndax saa bu la murid yi gisee seen pas yokk seen xaal yokk seen bëgg sëñ Touba yokk wax nañ ni liggéey jumaa ji du sëriñ Masamba Moussa na dugg si murid yi dañuy yuuxu ñii di daan jël ñii di gën a liggéey ñii di yokk pas-pas loolu nag la sëriñ Moussa Ka wax na anaka daan duróog sëriñ Bamba saa ñu ko gisee xel ya dem ci Cheikh Bamba bàccante ceeboo borom kaala ya kooku yàlla ñu ko yàlla fayal soxna maam Fatiloo euh, di di di conférencière di borom xam-xam moom la ñuy jox kàddu gi ñu joxal ñu ko micro bi mu duggal ñu nag ci du euh, euh, soxna maam Fatiloo noppee sëriñ Oweysu nga mën a nga mën a nga mën a jotal incha allah Euh, duggaatal ñu ma Massamba Serigne sàmba Diaw ku ne xam na ni màggal gi ren euh, Daaru Karim la tombeek bis bii di dellusee di la 24 incha allah ca Daaru Karim tombeek àllarba Serigne sàmba nag war a am lu mu wax ci kàddu taalibe yi sëriñ ma lu ñu koy waxtaane tey jii yaakaar naa ni plateau bu ne def nañ ko waaye nag ku xam borom tele bii am ni doo koy wër duggal kër ma Massamba doo ko fa fekkul doo toogee tuuti mu fekk la fa. te Serigne Mamoorum ma Massamba de moo ma wax bi su màggalu Touba ma ñëw fa fekk fa Serigne Sam mii mu ni ma soo àggee na nga sant alaaji mbakk yi wax ko ni ko rusloo maa ngi ñaan suñu borom guddal faram te wéral ko maa ngi ñaan Serigne tubaa gën ko yëkkati ginnaaw ma Massamba moo ma Massamba di Serigne Mamoor moo seere loolu ci moom yaakaar naan doy na sëkk ndax seere ma Mamoor ci moom moo gën a kawe seere yépp di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ni ki démb la fa jógee wax ni ko royukaay nga yow royukaay nga maa ngi digal ñii ànd ak yow nañ lay roy kon euh, ñu ngi ñaan Serigne Mountakha ne ci dëkk bi yàlla yàlla guddal fanam moom itam di fi dundal Serigne Touba di fi di fi yeesal ak taalibe ñu ngi siyaare baax daam jaane mi nga xam ni ma nga këram tey jii di di di di ñaanal bu baax nag waa kër Alaaji ma Fall di leen siyaare ndax ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi soxna Maguette Mbacke moom Serigne Modou Faty Khary ak njabootu alaaji ma Fall gépp sëriñ Mahmadan ba ci sëriñ Modou di taalibe bépp sëriñ Moustapha moom ma Massamba ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi sëriñ euh, soxna maam fàttiloo dégg sëriñ Owoy su dégg nga li sëriñ Sam dugg ci samaam ma Massamba lan nga ñuy indil ci sëriñ ma Massamba mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku vingt 24 incha allah bi ñu nekk ca Touba Daarul Karim bisimilah soxna maam Fatiloo bismillah soxna billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah ñu ngi sant yàlla buur bi subhanahu wa julli ci muhammadu rasulullahi salallahu alayhi wa santaat sëriñ tubaa xaadim rasul suñu yaakaari tey ak ëllëg yeesalaat suñu jaayante ci moom ñaanal cheikh sideel muxtaar suñu borom yàggal ko fii wéral ko kàttanal ko ba naal yi mu naalal Serigne Touba yépp mu àggale ko ba àggale waale naal yi ña ko jiite woon te ñu ànd koog moom. noonu it lañ koy ñaanale mbokkam ma sëriñ Moustapha moom Serigne Massamba suñu boroom yàggal ko fi wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Massamba maamam lépp mu defee ko nam ko soobe te mu ànd koog njabootuk sëñ Massamba gépp ak ñun taalibe yépp di am mbégte mu rëy sëñ Cheikh Anta Samb ci teewe jataay bu am solo bii nga xam ne euh, initiative bu rafet la boo xam ne Touba TV moo koy amal ci ëttub yoonu murit gépp te mel ne kenn ci yoonu murit lañ koy amalal tey muy Cheikh Massamba Mbacké waaye nga may ma rek ma nuyu kilifa kër gi Alaaji Mbacké Faye di ko ñaanal bu baax liggéey bi ko Serigne Touba dénk Cheikh Sidil Mokhtar mu def ci lu kawe njortam am ci ndam lu rëy di nuyu it personnelu Touba TV gépp ndax man Touba TV sama télé la maa ngi nuyu personnel bi yépp di beral nuyoo directeur de programmes sëñ Jibril Ndaw waaye di nuyu bu baax tey ziyaar sama kilifa yu baax yu tedd yi ma bokkal jataay bi xam naa su ma tegee nuyoo bi ci loxal suñu bàjjan soxna waalo rek mel na ne nuyu naa kilifa yi fi teew yépp ak taalibe yépp di rafetlu bu baax jataay bi te jégglu kàddu yi ndax wax dëgg yàlla jataay bi maa ci gën a xeebu samay kilifa rek ñoo fi nekk xanaa day kàddu yu digal rek yoo xam ne sañuñu ko bañ a jëfe moo tax waaye dis na ci ñun lool ginnaaw ba ma la nuyoo ziyaar la sëñ seexanta sama càmmiñ waaw sof kàddu yi rek ci fi sama kilifa yi daaneele nga xam ne indi nañ ab tënk bu am solo ci Seex ba tàmbulee ko ci wane ne suñu boroom buy indi buy indi nit koo xam ne dafa nara yanu ab yan ci àdduna da koy waajal nam koy waajale mooy tànnal ko aw askan Seex euh, Masamba bokk ci askan wu sell woo xam ne naka jëkk yàgg nañoo fés yàgg siiw ci diine ak xam-xam ak ngor muy askanu kokki ak askanu mbàkke ak askanu ndaam damay àbb rekk waaye ya sëñ Moussa Ka wayoon Cheikh Mouhamadul Moustapha ko Cheikh Massamba ndax ñoo bokk bokk gi sëriñ Moussa Ka dafa waxoon sëñ Modou Moustapha ne boroom siddiit yu rëy la kokki ak ndaam yàgg nañoo defi jaloore door a xam ndaam mooy sëtu Maxtaar Ndumbe ma sañtoon kokki ak sëtib gaydeel ma fandaam di funki moom njëmbatam sax na lu yàgg yàgg moom xiifuloon tey di door a regg loolu mën nañ koo wax ci Seex Masàmba ndax Mbàkke rek la ak kokki ak ndaam waaye suñu boroom defal ko tawféex tawféex ji mooy li sama wayjur yi wax léegi te mooy sëñ Masàmba daraam génnul Sëriñ Tuubaa ngir ne yooyu wàccuwaay yooyu ma am ci moom te ñu wax ko léegi duma ci dellu si mën nañ ne lépp sëñ Tuubaa moo ko ko defal damay indi rek bayti sëñ Moussa Ka ya mboxoon ne diglul ma wax la xar baaxi sëriñ ma Masamba yoo xam ne nekkul ci kudul Seex Bàmba Seex Bàmba nit ak juróom nit ak juróom di alxames nit ak ñaar di alxames la juddu alxames nit ak juróom-ñaar la juddu moo doyug waar Bamba ko tudde Seex Masamba Anta moo jàngaloon baayam ba Mamour ko tudd moo ko yar ba mu mu jox ko Seex Abdu Fandaam ba mu jimmi Seex Abdurahmaan moo ko sol xuraanu ci at yu néew néew la raw soo daanu euh, loolu li sëñ Moussa Ka jubloo mooy tudd gi ko sëñ Touba tudd tàmbaleel koom njàng jox ko sëñ Daam Abdurahmaan loo mu jàngal ko ba ci fukki at ci la mokkal alxuraanul karim bindal na it sëñ Touba kaamil yu bari sëñ Touba it tarbiyaal ko boppam nga xam ne loolu rek tawféex la ndax sëñ Touba mooy ki nga xam ne ku mu defar nga raw te it suñ boroom da koo defal karaama ci lépp sëñ Touba lu ne da ca am karaama goo xam ne yëmlewu ko keneen ku dul moom waaye rawatina nag defar ay gaayam damay faral di wax ne sëñ Tuubaa nataa ijuhu aruuxi yu mooy intaa juhu aruuxi yu mooy ñi mu defar dem ba noppi yóbbaale mbooloo defar mbooloo moo xam ne kenn ku nekk ci ñoom mën naa yor am réew loolu sëñ Tuubaa rek la ko suñu boroom jagleel mu mel ne it wàccuwaay boobu bim ko amee ci sëriñ bi ba noppi it sëriñ bi tarbiyaal ko boppam ci niñ ko waxee noonu ci diggante gànnaar ak ceyeen ju njëkk ja nga xam ne mën nañ cee wax rekk sof tuuti ji li suñu bàyyi sëñ sëñ saam wax léegi te na leen sëñ Tuubaa doon tarbiyaa ca ceyeen jolof nga xam ne foofa amoon na fa ndab loo xam ne ndabul gor ñi lañ ko daan woowe ndab loolee juróom-ñaari nit ñoo ko daan sukk wax nañ ne sëñ Fallou ca la bokkoon sëñ Modou Moustapha ca la bokkoon ak sëñ Massamba ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ko ñoo leen mottali bañ doon juróom-ñaar waaye ci ni sëñ Touba daan tarbiya nga xam ne dafa bokkoon. bismillah. tabarakallah dafa mel ni soxna maam Fati nga mel may ñu tuuti ñu nekk ci micro boobu lijjanti ko tuuti ndax euh, fi nga nag fi nga toll ci Thiéyène Jolof am na solo lool. sëriñ Masamba sëriñ Touba ko tarbiya foofu ca Ceyeen Jolof tarbiya ko foofu ca Jolof ànd ak moom àndin wu am solo tudd ko tuddee ko maamam ma Masamba Bàcc Anta Ceebu mi nga xam ni moo jàngal xaali Mor Anta Sali soxna maam fi nga nekkoon am na solo moom sëriñ Modou Lo moom sëriñ Daam Bale di sëtub soxna Daba mi nga xam ni mooy taaw Cheikh Masamba bismillah waaw sëñ Seex maa ngi doon wax rek ci tarbiya gi ko sëñ Touba tarbiya tam tàmbalee woon tem doonoon ca gànnaar tarbiya na ko fa waaye tamit ndax gànnaar sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ku am ku mënul alxuraan mënut liggéey liggéeyu góor ba ma fa fekk te sëñ Masamba ci ñi ko fa fekkoon nekk fa ba doon sàkkuwaale xam-xam ci boroom xam-xam ya fa nekkoon ba ñu tabul gor ñi nga xam ne ña ko daan sukk juróom-ñaar lañ te lay nekk ca ndab la du suur kenn nit te bu ñu jóg du jeex loolu yarub sëñ Tuubaa la mu taxawoon fa taxawaay boo xam ne it mënoon nañoo wax ne bëkk néegam la woon ndax booba da daan jëfandikoo euh, kàttanam ak dooleem ci ku wërta dugg du dugg lu ku ku wërta génn ku war a dugg mu dugal la ku wërta dugg du la dugal daan taxaw sëñ Tuubaa ci zaahir ci fànn gu bari noonu yi tamit la ko defee ci ni ko sëñ am waxewaat ci génn yi mu daan génn nga xam ne liñ ci jublu woon mooy sëriñ bi mi ngi woon ci résidence surveillée kon ñoom ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yar defar leen ñu am ak jot war nañoo mën a génn wane sëñ Tuuba ngir ne bu loolu kat ñeneen dinañ génn wane sëriñ bi noo xam ne du noona te sax lañ doon farlu farlu téewut am am na ñu daan ñu doon génn waaye fuñ jaar sëñ ma Masamba mii jaar fa danañ xam ne ñaari jaar yi bokkul loolu yi firnde ja mooy néewaana nga wàcc ci ab dëkk te ko fa taalibeeb sëñ Masamba te it suñ borom defal ko ci sutura joo xam ne taalibeeb sëñ Masamba bu mënul dara moom yombut a gis képp ku yaakaar sëñ Masamba ku ne foo man di nekk ak loo man di liggéeya suñ borom defal na sëñ Masamba sutura ak tawféex joo xam ne dinga nga ca ràññeeku te loolu moom fu ko waay seet maanaam gis ko fa boo ko seetee ca tukkikat ya gis ko boo ko seetee ca ña ca état ba gis ko boo ko seetee ca jànkati xaside ya gis ko boo ko seetee ca ñay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii képp ku yaakaar sëñ Masamba sëñ Tuubaa sëñ sëñ borom defal na taw feexi sëñ Masamba fa nga nekk doo fa mujj ginnaaw mukk kon amut taalibe bu munul dara loolu nag mën nañoo jàpp ne tab gi ak njariñ li nga xam ne mus sa fàggul àdduna dara lu mas a am joxewaat ko ci yoonu yàlla ak yoonu sëñ Tuubaa mën naa am moom la ko suñ borom faye loolu waaw bisimilah bisimilah. waaye tamit noonu la doone woon borom xam-xam nga xam ne mufti la woon boo xam ne liñ ko masal laaj tontu na ko tontu lu leer nañ loo xam ne da koy teg ci xam-xam noonu la ko sëñ Tuubaa dimbalee woon it ci ni ko sëñ Moussa Fall moom sëñ Abdou Khadir nettalee ci bi leen sëriñ bi laajee ni leen kenn ku nekk ci yéen na ma wax li mu bëgg ma defal ko ko. te moom sëñ Masamba mu ne ko man li ma bëgg mooy fépp foo toog ba jóge fa bu ma fa toogee day mel ne yaa fa toogoon. loolu sëñ Touba fàggul ko ko keroog nga xam ne jataay bu mu fekkee bu ñëwee te ca cat la lay toog fa mujj fa lay toog waaye bu bu sëriñ bi waxee ba noppi mbooloo mépp moom la ñuy topp nga xam ne bu dee tomb yeeg wax ji nga xam ne sëñ bi njaxlaf gi lépp da cee feeñoon sëñ Masamba moom la mbooloo mi di topp mu leeral leen ko te bu koy waxit na ko sëriñ bi doon waxe la koy waxee du ci juum dara du ci soppi it benn baat wala benn maanaa loolu maanaam tawfeex jum amoon la ci sëñ Tuubaa euh, mu doon koo xam ne it kenn yëbut yoonu murit jaar ko ci moom ndax ci tukki yooyu ma doon tukki fu mas a wàcc mbooloo mi dinañ gën a yokku dinañ gën a gëm sëriñ Tuubaa ndax booba da doon bàyyi xel li sëñ Tuubaa wax ne képp ku ñuy tudd di ma tudd te ku ma dégg jëm si ci man bu dajeeg yow waññeeku ngir saw melokaan woo xam ne lii jaaduwut àdduna dara lu mas a am joxe na ko ci yoon yoonu ci yoonu yàlla ak yoonu sëriñ Touba na ko sëñ Moussa Ka waxee woon rek wax ne mësula am nee na mësula toog mbooleem lu Bàmba taalif bind na lépp kooko moo di aarif mësul di mbàkke mbàkke fii sarsaara ak i jaraari ya fa doomi jaara mësula def Cheikh bàmba doomi baayam ba ngi xaleel xam na ne moo di baayam mësula def Cheikh Anta ba borom saam ay naw la ngir xam na ne ñooy ràmm fa saam nee na it mësula am ab lal bu baax bu yaatu fi suuf la daa fanaan ba nim xëyee faatu mësula boole ay dërëm di déppo laa jël sëriñ màlle wa Mor Fall déppo am taax ba Cheikh yay korne ma ngay tabaxal Moustapha di ñaaxu masula ber njinde ba seex yay sañc bamba nga koy palmaane di sub di xañ daaru karim la masa am ci daaru cig daaru maam Cerno faatee ku ko wax fa daaru daaru karim la masa am ci ab dëkk moom sëñ Masamba gorloo woon ko taalib ba mu gërëm mu sëriñ dàmbaleloo mi nga tudd nga xam uh, mu wajur wu góor sëñ gorloo woon daaru karim mu gor ko diir bu néew la fa am saxal fa sëñ jàmbale dëkkal ko fa sëñ Modou Fadi Xari kenn ci ak njaboot sëñ Masamba dem Daaru Karim ñu bokk fa nekk moom la wax ne sëñ Musaa Ka am na fu mu koy wax ne Cheikh Bamba mas na ko ne buur yàlla nee na nga dem te ka te dojee mooy carrière ya mu daal di dem ànd ak am rakkam am satuloo ñu sañ ci fa daaru sax fa daam mbooleem sëñ Masamba li li mu dund lépp benn dëkk boobu la mas a am te ndigalul sëñ tubaa la ko sañte woon te sax toogu fa woon ba tey noonu yi moo taxawoo sëñ tubaa yi ci zahir nga xam ne xamul ku dul moom bëggul ku dul moom taxawil woowu sëñ Seex Anta li muy taxawaay bi li muy rafet rafet taxawil wee ko gën a rafet te mooy dëggal gi ak sellal gi ak sax gi sëñ Masamba bam nee waaw ñëwaatul déet te it xàmmeewuñ jëfam diggante bi fi sëñ Touba nekkee ak bi mu fi jógee ndax wër na ci histoire ne bi ñi bi fi sëriñ Touba jógee biñ ñu indi sëriñ bi Touba moom àndul woon ci ñu ñëw ma nga woon njaareem ci wetu sëñ Modou Moustapha kon foofa la tàmbalee jàppale sëñ Modou Moustapha ci Zahir. ginnaaw bi it bi nga xamee ne sax sëñ Touba yoonu murit xam nga sëñ Seex Antal bi fi sëriñ bi jógee ay sànce la fi bari la fi bàyyi. bari na yoo bari yoo xam ne. ci yoonu murit réalisation yoo xam ne ginnaaw sëriñ bi la loo xam ne ay projet la woon doonoon ay sànceem euh, waaye sëñ Massamba lam njëkk a def mooy coow yi amoon ak réeroo gi amoon ak li doxoon diggante tubaab yi ak yoonu murit nii bind na sëriñ bi bu fi jógee yoonu murit day day fay ndax seex yi bari nañ doole te it euh, bennoowuñ loolu ma Massamba dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo fexe ba loola moom effacé wu ci lim lim dëkk a def mooy nangu dogalum suñu boroom ci sëñ Modou Moustapha ci poste bi mu occupé ci Serigne Touba nekk ab taawam njëkk koo wuutu ci ak njabootam sëñ Massamba effacé boppam taxawal sëñ Modou Moustapha nangul ko jër boobu. Euh, bi ñuy liggéey yoonu saxaar gi nga xam ne mën nañ ne moo ci moo ci njëkk biñ leen biñ laajee sëñ Modou Moustapha junni góor yàlla ak ak juróomi téeméer. maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw indi juróom-ñaar téeméeri nit sëñ am sët loo bu ngaa bu rakk ci sëñ Masamba la ñëw indi téeméer sëñ Mandoumbe indi téeméer juróom-benn téeméer yi ci des diggante moo Modou Moustapha rek la ak sëñ Masamba. incha allah barakallah soxna maam Fatou dina dina ñëwaat ci yow ci. leeral gu am solo googu nga leeral si Cheikh sàmba euh, woykat ba nee na soxna isa Issa euh, meññ na ñeent ñenn juróom ñëpp a gàmmoo Modou Lo Issa sëriñ am satu isa ñoom ñëpp ku ci nekk sëriñ Ibra Lo Issa ñoom ñëpp ku ci nekk sëriñ Touba def ci yow loo xam doy na sëkk kon ñu xam ni jigéen jooju di soxna Fatou Issa Diop yàllaa ko waajal mu doon ku sell ku màgg ku mu jur wàlliw nga ku mu góor yàlla nga ñu ngi ñaan bu baax a baax euh, suñ suñ borom yokk ay leeram taas ñu ci barkeem ñu ngi seet rafetlu teewaayu Serigne Abdou Razak moom Cheikh Moustapha moom Serigne Massamba ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Moustapha moom Serigne Massamba eh, tab gi ñu wax ci Serigne Massamba nag ku jaxasoon njabootu sëñ ma da nga xam ni tab googu sëñ Masamba yóbbaale wu ko waaye bàyyi na ko fi ndax mboolem ñoom ñëpp ku ci nekk da ngaa tabe lool te tabe jikko ju am solo la ba ci taalibe yi sëriñ Masamba yi rek ñoom ñëpp lu ñor dañ koy joxe kon ñu seetaan bu baax benn élément dikkaat nag soog a dugg ci animation bi sëriñ Moustapha Dieye moom sëriñ Masamba na wàcc euh, ñu seetaan benn élément bu ñu amoon ci Cheikh Masamba soog a dikkaat ma tàmbaleeti te wax le feeti te xam le njariñu màggal mel ni mooy jëmmi xasida ci bopp dafay doon misaal wala li ñuy wax na moo su defee te ci ëpp li ci gën a ràññiku mooy wara maanaam suñ Mahmoudan daana ma ko wax ni ma am na kilifa bu si Fallu xaw ma kilifa bu baax xaw ma Cheikh Moussa daana ko wax di ko tàggat ci wara bil xasanil basri yi habliyal wara wal insilaaxa min hawaaya wal bida nga xam ne te wara mooy lislaam mooy lépp su ko defee nga xam ne waxtu wala suñ bi da ko daa seeral sax ci jotaay yi am na itam ay jagle yoo xam ni suñ Tuubaa ci boppam misaal na ko ci moom yoo xam ne mënu mënu su ko wax ci ay rajo muy melaw waa àjjana lu ci bare mënees na ko xool ci Masamba mi defal ko ay may yu bari itam ci diggante mbind ak jàng ndax am na kaamil yoo xam ne yan lenn li moo ko bind Sëñ Tuubaa bind la ca des am xasida yoo xam ne day bindi xaaj bi mu bind la ca des la ca des mu maas lépp su defee di ko firi firiin woo xam ne itam bokkut ak na ko nit ñi dégg nga xam ne nit dégg woon sëriñ bi jafe na lool ginnaaw sëriñ bi itam mu wone aw yoon woo xam ni yoon woowu su amul woon jafe-jafe dina am ndax dëkku Tuubaa bii lu nekk tey moo jëkk yilif du di dox doxal saa yi ak ci bati jikko yi nga xamee tam moom la suñu boroom di tagg nit muy ak tab mu àggoon ci foo xam tam mënee ma sut a gis mbindeef mu ci àgg fa daanaka yére yu am jubbe sax fonk ko ndax dara lu ca lu ak si yu tax muy yàlla ak sëriñ dana ci am yooyu nag duñu ko leeral waaye xam nan ko ndax wa fii baax li umar it maa laa yu bëyi waaye junj nag dana doy boo defee ñax ña war a xam daañ xam bu ngeen gisee melokaanu baat nag wuréy woowu yëpp ak fees gi ci suñu borom dell ak noonu noonu mu demee woon dafa yorewul jikkoy doomu aadama xam nga li ma li ma jub wax ñi xam baatin su ma junjee daañ xam dafa bokk ci tanleef bi nga xamee ni sunu borom da ko tànn boole ko sëriñ bi li mu ko boole moom jukkeeku ci malaaykatul muqarrabin te li may wax ni wér la rek te fu wér laa ko jële kenn mënu ko woon a séen nag ci diini na mbindum Serigne Touba yoo xam tam xam ne gis nga Serigne bi bind ko muy xasida ak gum mën a doon ak goo ca mën a gis sëñ bi ko ci loxol boppam nga gis ak nga bañ a gis ba ci kataballaahu tabaraka wa taala yëpp ak lu mu baatine baatine baatine sëñ Masamba Lawoo bind loo ko loolu itam taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ Touba yëpp ak fu ñu ko mën a yaakaar ku ci ne am na njukkal lu la war sa diggante ak sëñ Masamba bor boo xam ne mënoo koo fay nag loo am sànni ci nga koy fay ndax tey jii ku yeewu toog ci sa biir kër yëkkati benn bayitu xasida jàng ko rek am nga njukkal lu la war sa liggéey suñu am doole lu ni te tedde ko ci xasida Sëriñ rek te raa nga jooju sëñ Masamba la ko bi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 tambali sëriñ euh, euh, sëriñ Cheikh Abi moom sëriñ Abdou Mbar ak soxna Abi moom sëriñ Falilou sëriñ Moustapha Dieye moom war a jàng xasida ñu ngi ndokkeel bu baax euh, njabootu sëriñ Massamba yëpp bunti këri Cheikh Massamba yëpp ànd nañu ñun daañu ñëw incha allah bala ñëw tëj jotaay bi mu mel nii dinañ dikkaat ci sëriñ Uwaysu ak sëriñ Sam ak soxna Maam Fati balay sëriñ Samba Diaw moom Cheikh Massamba yëkkati ay kàddu nag ci turu taalibe yëpp ñu soog a tëj jotaay bi ñu ngi ziare bu baax euh, Serigne soxna May moom Serigne Modou Fatou Khari ñu ngi wax ñu ngi topp jotaay bi di ziare njaboot ma Massamba gépp ñu ngi wax ñu ngi topp jotaay bi ñoom ñëpp ziare gën a nuyu Serigne Moustapha gën a ziare Serigne Mamor ak Serigne Abdoul Khabir Serigne Cheikh mi nga xam ne moo yor liggéey bi moom Serigne Mahmadan Jobe mais ay kilifaam di liggéeyloo ñu ngi koy ziare bu baax kon Serigne Moustapha Guèye nga yëkkati xasida euh, euh, ci jotaay bi yow mi nga xam ni yaay jàngkatu kër ma Massamba ñu soog a del si nag ci deuxième tour bi nga xam ni moom lañ war a def ci waxtaankat yi bismillah bismillahi walsaanu bamba njàngee di seedi doom bakeet jëfal baam bismillahi walsaanu bismillaahi weretaanu Bamba njamee ngi dee ci joow pakkeem ca bël baat ku lab ci géej mooli di xeeñ sa mboor ma ku dee ci jéeri gaaya sangi njoor ma Bamba di géej murit ya ñoo di jën yaa lu dee ci géej lool du muurum tan yaa mënul ndox te taxaw fa tan ba lii pati ñëw jàlle la fab sa yen ba xam leen ne gaaya seeni ruu du faatu seeni yaram du ràpp ñoo ko yaatu soo ko gëmul jàngal wala taqoolo ba dem ci ahyaa un nekkoon ngoolu te gaayu baax yaa xamle leen te way leen dara waral seeni saaba roy leen budul woon ak ñi bind ngir raaf na budul woon ak ñi tari xam-xam daay na budul woon ak ñi yàgg daay yannoor dootul yeewu abadan ba xëy buur waxal bu kaawut bamba waxta way wa bul saagaati xerawlu leen te ñëw nu xaw toongaa bàjj ba daanu na ci digg géej ga wallaay sëriñ ma sàmba mbàkke keroog bam nee jirim fa kawlax géej nga ànd dex ga lépp yi ma mat si say xanaat ma tabba fi daa roy roy lu seyxi bamba mawti la siitu miitoo bi man yux yi walaa mootu yow ba nga yóbboo xaadim rasooli teewoon nga dégg si caab ni ban koo suuli waaye la yóbbu xaadimu rasuuli du bàyyi kenn ay nal abul batooni wa kullu nafsin makkataaki mbàkke saayixatil mawti bi xayri sàkki bakkan du yées ab bik du weesu ab bik wàllu yaag buur yaag ña daa fi wax dëgg ku àgg ci gaar daldi sànni paasam ñu daldi koy teeru mu fat bagaasam bu dee jullit ñu teeru jox jinaana bu dee leneen ñu teeru jox niiraana yow malaatam dee mi nang nu fàtte ndax nu liggéeyal Bamba dee yaa néego roccuru ci Seex Masamba yow malakul mawtu muy ji Bamba Bamba ko woo fii laylatil xamiisi weeru rajab la wuy ji rumoosi malaayikaat ginneeg rijaalul xaybi ñépp di teeru ruuga doonal ay war na pakeem teral ko fil jinaani guddi juróom ñenant lay fanaani xaama ulay sasin calaa ko taarix la bàcc mbàkke caat mara ñaane kawlax néeg ban ko tabbaloon atum na tomba leru ba ji yàlla may borom ba waman waajir fi sabilillaay mbóot maa ko yóbbu foofa doona laay ilax te mooma at la waxoon rakkam ja sayxu ibrahima loo donam ja na néeg ba jox na tomba cerno ca moomaat booba la geddoon xarno nan jooy sëriñ masamba antu ceebo nan jooy sëriñ ma samba anta ceebo ma geddoon àdduna wax waxtu ceebo demoon na bayu tool ya bay faraasu ñu xolli aw joom mu far miraasu jawrim yaa ak toolam ya doon àllarba gedd na yëpp far na fekki bamba xam naa teraat ba mu ñoo fekki bamba rilwaan tijil na ko Touba am nañu gan gu tedd ci bés booba keroog la ba ci jotte ma doon ijiri jëmu bindoon génne ca kaddul ijiri wetal islaami sëriñ Touba ji kenn ñu roy buur na ci mbaaru waa rongoñu lislaam yool na tey fa Touba jumaa ja yi kenn ci baatin booba o xar bu kaawu loolu moo jooy alaa saadaati ñoom laa doyloo way jooyloo leen ma caat ma semmalta waaw ya way jooy la leen ma caat ma sem ma taaw ya sëriñ ma samba makke mool baak maaw yëpp jooy naa ci ama wam sësin seyxi bambaak xaw doon liggéey këtëb yonen baak jooy naa ci ama tam sësin Cheikh Ibrahima Fall lamp ba leeraloon ak ma jooy fi ren ji ci atum unay sësin sëriñ ma samba mbakke la fase adduna mas jeexal la sangi mbakke boo fi taaw boo yaa manki yellonti yàlla ba fi Cheikh ma samba ñu di ko roy di ko xoolee Bamba yelloon ci yàlla ba fi Seex Masamba jommal na naar jommal wolof yaaram ba ma wax la karba tu Sëriñ Masamba yoo xam ne ni ci kudul Seex Bamba weeru balax la ci ñett ak juróom ñaar di alxames la juddu moo doy waar Mamba ka tuddee Seex Masamba Anta moo jàngaloon baayam ba Mamor Anta Seex Bamba wax na ne may baayam ci baat ngir yëtti yëf ci yaayam keroog ndeyam bool na ne yaayam léppam jébbal sëriñ Tuubaa mu def boroomam mu dellu jébbalaat ko sëriñ Masamba ngir feddale ko njébbal ak baayam ba keroog ndayam wax na fa wax joo xam ne sañee fu ko biral bi doonil may ku weddi nga dem laaj ko sëriñ daam moo ma wax moo sant woon daam yelam ba mooy bi di ca laar ba taarix ba maan sasin mooy taar ba way jooy ma caat ma sëñ daaru daaru karim la njëkk am ci daaru léppam dogo dugal ci seexi bamba daaw borom mos la jiitu bamba déglu ma la lim defar ci réew mi nga daa xam ne moo ci réew mi Seex Moodu May taaw sëriñ Masamba moo ko defar sol leeri bamba maayam ba ne waaye Cheikh Modou mayam mayam ya ëpp na leen bu leen ko laaj moo rëy may Serigne Mahmoudan Mbacke moo ko defar ci baatin defar jigéen ne ba ñëpp am nañ baatin Serigne Modou Faati xare baatin ba moo ko defar sol ko leeri Bamba Daaru Karim ndar muy bayeg darmo kab dong ba jaan naa ko yaanuy rammu Ibnul Karim baaya may ni ci wet gi nag xamal ne moo di yaayam Cheikh Saliou Mbacke moo fi wutu woon Cheikh Massamba mbooloo mën a ko yaay donooy Massamba dëdd na wàcc àdduna ak cam àdduna ak mbolom gi te suula fees muur na far kanam nga maymunatun maymunatun maymuna Cheikh Abdoul Baaxe Mbacke Cheikh Abdoul Baaxe moo di doom ci soxnatul maymuna daa dambe leeri saay bu nooreyni noorul ala noori ilal kawnayni moo tabe moo goro am teraanga moo roo réew mi ku ñëw mu jox teraanga ku muy teral sam xel dem ci rabbana fa Moussa ñaane rabbul arsi rabbana Cheikh Abdou Salaam la may melaw jëmmam ja dafoo ko gis mu lay niroog jëmmam ja Cheikh Moustapha Massamba Cheikh Moustapha Masamba la yàlla tànn def coy ngëreel ba ñëpp far ko tànn mooy sëriifun sëriifun ñëpp xàmme na la foo gis mu toog ñëppay xam naay dara la sëriñ Maam xam ni ñëpp naa anta sëli yaa toog go rek lewet la boole dajale moo tele wa tuwaafisul xuraani na yàllaar ko sol koy rilwaani barke boom ca baay ba ak maamam ya la yàlla boole jox ko moom doomam ya abdul qadir ibnu sëriñ masamba loo gis mu def neex na sëriñ masamba roqiya toog amina toog mam faat ñu màggal ma tàmbalee ci tabax le feeti taxam le feeti njariñu màggal mu jóg di màggal barakallah sëriñ Moustapha Dieye ku dégg ni nga jànge nga xam ne yaay jàngkatu sëriñ Massamba doy na sëkk buntu këri sëriñ Massamba yëpp tuddal nga ñu ko far sëriñ Modou May sëriñ Mahmadan Jobbe euh, euh, sëriñ sëriñ Modou Fati Xari waaye sëriñ Salihu sëriñ Abdoul Baaxe sëriñ Moustapha ba ci sëriñ Mamor ba ci sëriñ ma Khabir ba ci sëriñ Abdoul Salam jërëjëf euh, ci lim googu limal njabootu sëriñ Massamba gépp ñoom ñëpp seenu njaboot ñi ngi fi nekk nekkal fi tey mboolem euh, euh, Serigne Moustapha moom Serigne Massamba ñu ngi ziare njaboot gu jigéen gi yëpp. ñu ngi ziare njaboot gu jigéen gi yëpp soxna Bintu mi nga xam ni ku ne xam na ni moo saxoon fii ci Ndakaaru soxna Nenn Gay bàyyi faalu soxna Bintu moom Serigne Massamba doo fi nekkee rek njaboot gi yëpp a ngi fi ñu ziare soxna Maam Faate ñoom ñëpp euh, ak soxna Bintu Jaw moom soxna turandoo soxna Bintu ab sëtam di doonoon xaritam. ñu ngi koy ziare bu baax ak njaboot gi yëpp ak mboolem sët yëpp di ziare bu baax euh, njaboot soxna Astu Mbàkke moom Serigne Massamba soxna maam Khady Diaw ak mboolem njaboot gi yëpp ndax mboolem foo jaxasoo ak njabootu Serigne Massamba da nga xam ne liggéey ak jaamu yàlla gi leen di baax Tuubaa joxoon Serigne Massamba mu sax ci dakk ci lañ sax dakk yàlla yàlla guddal seen fan mu mel ni euh, Serigne Uwaysu Serigne masamba euh, dafa mel ni dafa dafa dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi ki nekk ci ligne bi nag ñun waa Touba TV ak barab bi moo ñu wax jikko jikkoy sëriñ ma Massamba mooy sëriñ Mokhtar mi nga xamee ni moom la ñu euh, euh, moom la sëriñ tubaa defal fii ci barab bi muy fii suñu mu fii suñu sëriñ Massamba di fi sëriñ ma Massamba di fi maam Thierno di fi sëriñ tubaa mat ko sëkk yor yu rafet ndax nit du nekk ak yow di ku baax. di wane lu baax di jëf lu baax du ay bokkam ñëwee da nga koy wax ba ñu dégg ko ñoo bokk fii di liggéey waaye as gor la ab jullit la li ñu wax ci sëñ Massamba moo firi jikko ndax nit doy xëyandoog moom di wàccandoog moom man ngaa seere ci moom kon sëñ Maxtaar te tey say bokk fi ñëw loolu waral ñu seere ci yow seere su rëy sii ñu ngi ñaan saw fan gudd te yàlla wéral la bu baax a baax kon sëñ Maxtaar bismillah salaamaaleykum sëriñ Maxtaar asalaamaaleykum Sëriñ Maxtaar bisimilah. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lati min atalab ixlaas saxi wa muraqaat al adab man yansuru lquluba wasaraili doona lati mina yakunu saaxiri suma salaatu maxa salaam yatbaxu ala lati fina qadan yusafaxu asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp Euh, di yëkkati kàddu yi rek ci kàddu yi kàddu ndigal ak di sant bu baax a baax bëgg a sant suñ mbokk yooyu nekk ci plateau bi euh, sëti Cheikh Massamba yooyu di leen siyaare bu baax a baax di ñaanal di ñaan seen maam yàggal leen fi bu baax a baax yàggal liggéey bi liggéey bi rafet na lool euh, ñu ngi ñaan xalifatul xam mu yàgg fi lool Cheikh Sidil Maxtaar di ñaan xalifat Serigne Massamba Cheikh Moustapha Massamba yàlla yàggal ko fi lool sëgëral ko ak sëriñ Mamor jëwrinam euh, ñu ngi rafetlu waxtaan wi lool ak liggéey bi euh, di jot ñu ne ngant moo ñu fi euh, te teew te muy ngant loo xam ne ngant lu yàlla loo xam ne mënutoon a ñàkk moo tax ne kon liggéey bi ñooy bokk ak yéen toog foofu di ko defandoo ak yéen suñu kàddu ci Seex Masamba nag du sori ndax sëriñ Masamba ku ne xamoon na ne waxaat nañ ko fi waxaati ko fi li Sëriñ Tuubaa gënoon a fonk euh, muy xasaay ji euh, nga xam ne moo doon ab liggéeyam ci kaw suuf moom la ko joxoon kon loolu rek doy na ci seede euh, bare na foo xam ne fépp fu Sëriñ Tuubaa masoon bëgg jaar te jot gi àggale ko fi woon wala gàllankoor yi àddina bi àggale ko fi xam nañ ne fu ci bari Sëriñ Masamba moo ko fa doon ndax ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa lu ëpp fanweeri at ak ñeentam ci ak dundam bàyyi nga ci loo xam ne ci ginnaaw bi suñu borom subhaanahu wa taala dogalee dogal bi lu ci bëree bëri dafa doono dafa nekkoon ci loxol tubaab bi ci Paris donc lu ci bëri euh, Cheikh Massamba ko doon doxal euh, kon loolu euh, seede na rek moom kon fi sëriñ Massamba féete woon ko ñëpp amee ku nekk xam na nekkoon ci Cheikh Massamba ak kabe gi nekkoon ci moom bari na euh, bariwul doomu aadama ju ko am euh, bokk na ci témoignage yi ma mujj gis ci moom nga xam ne ci archive la nekk dañuy wax ne euh, li mu yoroon ci xam-xam ak ak ak ak ni mu meloon ni ñu koy misaale dañ ne daanaka moom malaaka ñoo ci yem ci am njàng te xam-xam te loolu it mooy loo xam ne sëriñ bi moo ko defoon ci moom ndax li imaam Ghazali di wax ci almiskiya di wax ne euh, yàlla rek moo fi nekk lu dul yàlla rek mbindum yàlla la euh, kon loolu la Sëriñ Tuubaa feeñal ci ñoom ñëpp euh, lu ci dul Sëriñ Tuubaa rek def defu Sëriñ Tuubaa la kon Sëriñ Massamba danoon koo xam ne ginnaaw bi ñu bokkee Sëriñ Tuubaa Sëriñ Mamadou Anta Sali ba noppi bokkoon ci maam maxaram nga xam ne ku nekk xam na ne diine ak ak ak ak wattu alxuraan ak ak ak toppante bokk na fi li sëñ li ci sëñ bi fekk waaye dañ ñoo dañ xam ne sëñ boo leen sàkk woon ngir ñu ànd liggéey boobu euh, te loolu booy xool rek ñu njabootu sëñ Mamadou Anta Sall yëpp tëdde ak ñu tëdde ku ko xool rek xam ne mbir la moo xam ne euh, fan ko doon defee ca kaw la ñu doog a wàcc fi suuf kon ñu ngi gërëm ñëpp euh, bëggoon a bëggoon a seeral nag mbokk yooyu fi toog yéen liggéey bi ngeen di def euh, nga xam ne fan yi yëpp bi lii jub see ba léegi daanaka nelawu li ko tàmbalee ci Jibril Ndaw ba ci Mbàkke Mbooj ba ci yéen ñëpp euh, téléphone bi fay lu nekk ngeen ko ci jéem ndax seen yéene loolu tamit ñu ngi leen ci sant bu baax a baax euh, comité d'organisation bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen delloo njukkal sëñ Cheikh bu sëñ Mahmadan ñu ngi ñaan samaan saxal la fi sa yàggal la fi bu baax a baax sëriñ awee ci yéen tam liggéey bi ak sëriñ Sam sama moom moom sama bopp moom nga xam ne benn lañ su ma tuddee sama bopp jarul ma koy tudd euh, ba tey ci bëccëg yi rek sëriñ Amis mu ngi lay woo ci am solo ci loo xam ne fondation bi moom itam liggéey ñu ciy def nelawul ku nekk di ci def li nga kon yàlla na leen seen maam yàggal euh, te dëgëral leen bu baax a baax ba ba ngeen sëriñ Abdou léegi la ma woo moom itam di wax ne ma ngant lu mag a mag moo ko tee moo ko tax ak teew foofu euh, bu ñu demee ba ci ngoon bi dix-huit heures dix-neuf heures waaj jot lañ ko fi woowee mu war a génn xam naa fi may waxee ni bu fekkee dëkkalewul sax war naa dem tuuti ci kanam loolu tamit àq la juma yóbbante woon ma wax bu baax a baax. assalaamu alaa man ittabaa hudaa jërëjëf. barakallah Serigne Mokhtar moom Serigne nekk fii ci barab bi nekkin wu rafet di kenn ci ñun. yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko bu baax a baax a baax euh, di ziare bu baax euh, Serigne Abdou Samad moom mu wax moom Serigne faati Faty yi ndax ba waroon nañoo bokk jotaay bi ñun ak moom ngant loolu moo ko téye Serigne Woysu dañuy def deuxième tour bi rek ci mu euh, lu tënku rek ndax euh, waxtu wi ñu ngi wax ni sori na lool euh, ci ma Massamba ndax sëriñ ma Massamba sëriñ Touba dañuy ko su ko tas xii nii bi hasabu saara tan wali xutta faydan jëlal bahra wal fulka yàlla lam joxoon yonente bi salaa salaam ba mu ko dindee man la ko jox ma jël lépp naan ko may na ma loo xam ne nag toll na ni géej wala mu gàcceel géej loolu nag day sëñ ma Massamba day géej goo xam ne mënees su ko jeexal xalaa des ci jukki loo xam ne mënees na ca roy sëriñ ma Massamba ba doon jullit ak kan waaye doon mu saadix doon ko sëñ Tuubaa gërëm ëllëg ndax ku roy sëñ sëñ Massamba da nga noppal sëriñ bi ëllëg lan nga indi ci liñ mën a gën a mën a roy sëriñ Massamba di waajale bis bi nag incha allah àllarba le 24 bii ñu nekk ca Daaru Karim bismillah liñ ci gën a mën a roye day mooy li sëriñ Abdoulaat mu sëriñ Touba bi doom Seex Masàmba daan wax ne mbooleem li kilifa yi daan ndamoo li saa baay Masàmba daan ndamoo mooma ci dàqal mu ak taalu bi sëriñ Touba yi daana wax ne koo xam ne tànn loo na ma day la ma lay tànnal mooy ak taalu bi rek sëriñ Abibu Mbàkke nag nettali na ci sëriñ Masàmba <coughs> nee na sëriñ Masamba day ko amoon xaas la ci sëriñ Touba ngir ne bu masaan di waxtaan day ca cat yi mbooloo ya ca cat la mujj lay daan daat lu man ñetti mètre capp foofee sëriñ bi wax ji day mel ne luy xaw a riir daanaka kenn du ci xam dara waaye bu noppee foofee mu cappoon sori lool day mooy doon diggu jataay bi ndax ñëpp noonu lañ koy wëriwaat nañ wëri woon sëriñ Touba mu waxee ko na mu ko daa waxee fu mu doggamtal mu doggamtal fa ba wax ci jeex takk loolu la suñ Moustapha Abdou Khadre di wax ne bu doon jamono yii la damay wax mel damay wax ne mel ne sëñ Massamba ab magnétophone la boo xam ne da doon bu ñu noppee bés bu muy dox day mel ne noon na daan mel boobu te boobu magnétophone xewul loolu kon euh, may borom defaloon la ci sëriñ bi moom it sëriñ it wax na ci waxu ñeewant nee na day bi sëriñ tubaa làqoo ne lim ñuy bett bett bett bett bi sëriñ Masamba làqoo mënu gën a bett fuuf ngir ne jàppoon nañ ne dafay des doon moom dinu nu wétli di nu teete ni sëriñ bi daan def far moom it diir bu néew mu jóge fi nee na loolee sax mënu gën a bettaat foofu fuuf ci jéggi gi fi sëriñ bi jóge loolu sëriñ bi Mbàkke wax na ko ma dégg sëriñ Masamba nag ku yéeme la bisub alxames la fi ñëw ci jamono bisub alxames la fi jóge ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru rajab euh, sax baan mooy weer bu njëkk rajab sax baan di baraxlu la ñëw juróom-ñeenti fan di alxemes ci weer wa njëkk sax baan di rajab la jóge jóge googee sax <coughs> bëggoon naa leen cee mosal tuuti lu leen loo xam ne da koy dolli koo tuubaa gii la gonte bind bayit wii ma leen di jàngal def ko ci jiboom bayit wi dafa wax ne intaha kaddul hijri bilantihaa in ilayya abada wantaha maddul ajri ilayya bilantihaa in anni abada daal di dugal ci këyitam daal di wax sëñ Modou Seye ne ko dawal sëñ Modou Sa maa ngi ñëw sëñ Modou Seye da koy nettali ci bànd bi am na ñu koy wecc ko day wax ne bi ma ko nuyoo ne ko sëñ Massamba nee mi ngi ñëw day may jàll man jëm boori eh, ngay nee na gunge na ma ba ca penc ma wax seex yëpp gët leen ne gaaw leen sëñ Massa maa ngi ñëw nee na mel na ko am aal noonu ndax sëñ Massa moom waaye euh, ñëwam mësul waayaf ndax mbooloo ma ngan mi ni muy xaw a diise nee na ma baleen fu ñuy kër kër yi fa laa deme man ba mu ñëwee ñu am lu ñu fa waxtaanee loolu moom la ma ngi di wax ne sëñ Massa Modou Boussa waroon a dem sëñ Massa ma ne ko bàyyil ma demal la ndax bu leen fàtte ne Serigne Touba dafa cofoon ci ak dundam jox sëriñ ak sëriñ Abdou Rahman ak ñett lañu daal sëriñ Masamba it dafa def loolu dafa cof ci dundam jox sëriñ Modou Moustapha wii nag day firi ci arab ne coonab àddina jii ma nekke woon day tàggu na ma jeex tàkk te dootul dellu si mukk dellu si daat ne fay fay jëf jii ma doon jëf ci àddina jublu cinéma te dootul jeex ba mukk ndax la fay ñëw bu dee kii du jeex daal di koy def nag euh, defoon naaj sax bànd dama ko jotul euh, defar ba mu ma génnee ko dama dañ koy def téere bi mu jaaree dëkk yi mu jaar ba àgg ci ko jumaa daal jàll jëm mbos jëm kër sëñ euh, waa ji sàmb ak euh, ki sant Diop Abdou Diop defe naa wala Moustapha Diop tur yi daal takk duma ko ñaar ñii la àndaloon ci wëtiiru fas bi am pënu sew yi dañ koy tànt mooy carotte voyage bi donc it la mas a defee loolu ndax Serigne Massamba Mbacké ab euh, otoom lu mel ne 46 la woon ab camion boo xam ne mbooloo mi dañuy yéeg ci gannaaw mu ne ci kanam chauffeur bi dawal ñuy jàng bu ndee ba jubub dëkk kilomètre nag dañuy wàcc ñoom ñëpp gaare wata bi di dox nag di jàng ba ci dëkk ba bu ngan nga jàllee ñu ñu débaat loolu la daan doxe waaye at mii nga xam ne dafa bëgg a génn nag ci anamuk nii ko sëriñ bi waxe woon del wër réew mi te loolu musu ko wax bàyyi ko te sëriñ bi dem na mu préféré awe ci noonu moom watiir la defee nag ngan yooyu muy ngan yu simple nag yoo xam ne yooyu tàggatoo la ndaxte ni ñu ko nettalee soxna Nagoy Diouf bu sëñ Aliou wax ne bi mu demee sëñ Aliou ne baye boog ngeen takk jëm Touba ndax ruug Seex Masamba tàggu na ma bi mu jaaree mbos kër sëñ Abdou Bousso te gannaaw suba sa ndax dama jël fi mu fanaana fi yendu ba julli fa takkusaan te timis ji la ne nañ jàll ko sëñ kër sëñ Madiang keroog wax na kii sant Jóob nga xam ne moo doon dawal carotte bii ne ko dàqal muy dàq mu ne ko dàqal muy ba àgg ci màmm mu ne ko dàqal nag sëriñ Cheikh Gueye mi doon taawu sëñ Madiène Gueye moom jëm si woon moo ma ko nettalil boppam ca ana yële 89. dana ma booba gone laa maat ak sareet bi man mii ànd ak bàyyi bi ngóor si Diop egsee ne sëriñ Massamba ma nga toog ndax fas wi daf ma ko màmmuloo ba màmm bi ëpp ba arne yi dagg ma nga fa nee bi ñu ñëwee maag bàyyi man nee na maa dawal sëñ Cheikh Gueye moo ko nettali man mii laa wax. nee na maa bàyyi moom daw na jiitu ma ma takk dab ko mu yéeg ma teg ci bi ma ñëwee ñu jël sa misaam mu yéeg toog mu ne ñu ne ko kër docteur mu ne dem leen ci dëkk ba mu ngi ñu ngi tolloon ca tool yee ci wurmbalee nee na bi ñu accès ba toog ci néeg baay bi nag ma toog nii suuf góor si sax mi ngi jàmbat naan ko waxtu wi ndox dafa guddi ba noppi nga di ma dàqloo di ma dàqloo diir bu yàgg boo xam ne xaw ma loo ci war a jublu sëriñ Masamba ree ko ne ko noppil sa wàll nekku ci moo tax dara jurtu la foofee sax la waxee ne ko majang jëlal sa loxo jóo ko ci sama dara génnee mbind mi jàngal ko ko ci lañu gisee mbind mii nga xam ne def nañ ci tàggatoo bu leer te bindee woon ko tubaab ba muy gont loolu lu ñëpp war a xam la ba ñu noppee waxtaan fa nee na ma daal ba 22h30 daal la ko ne nañ dem kon kër docteur nee na ñu takk war ko yóbbu Kaolack ñu war a jaan ngir mi néew nee na foofee sax fas yi dugg na ci guddi ga dafa taw taw bu ëpp ba pënd bi dugg na ci lu ma ne kanaal ba bonde sëñ ma sàmm ne loolu lu mu ma ne ko day taw bi dafa taa euh, gisuma pax yi ci pënd bi duggee nag moo bonde noonu mu ne ko ah xaw tuuti yëf yi gën fee gaaw de bi nu àggee Kaolack te dispensaire ba hôpital ba am na fa ñetti fan sëñ Seex nee na ma waxtu wi muy nelawee daal jekki na jekki na bàyyi xoolal asamaan si ba xam nu mel mu xool mu ne ko dafa xiin mu ne ko day taw de waaye taw boobu day majang am na lu muy àndal nee na ba mu tàmbalee taw daal laa yëg ne sëriñ bi waxatul ak man dogal na fi ñu woon sëriñ bi la ko jaarale nee na ko majang bu ngeen ma yóbbu nag bu leen jaar yoonu bu saas wële da ngeen di jël yoonu euh, njëriñ bi waaye nee na ñu fàtte ko ndax yoon wali dafa gën a gàtt ndeke dafa taamu ñu génne ci kër gu mag fi sëriñ bi déparé woon bi ñu koy indi Tuubaa ba aw si ci gaar bu mag wàcc ci jumaa ji nee bi ñu ko fàttee nag bay jël yoonu mbar wële bi gën a gàtt wata bi daal di fay sëñ Seex ma nett lii nee na ñu defal lu mat waxtu di kër kër yi ba muy ñu fàttaliku ne waxoon na ne nañ jaar yoonu njëriñ mi te bañ a jaar yoonu mbar wii ñu ne ah kon kat li war mooy jéem a wëlbati wate wata bi bi na ko wëlbati ba mu jublu ñu yoonu njëriñ bi ñu la xàll woo nekkoon la lu mu tàggoo la ndeysaan ah, yi na ci ah, seex yi nga xam ne sëriñ Masamba am na leen ñu jël ñu jël ñu jël Pape Mayel ñu jël Pape Mayel dafa nekk ci ligne bi waaw kon bisimilah nga àggale euh, bisimilah Pape di taalibe sëriñ Moustapha Moustapha euh, ñu déglu la rek euh, soog sëriñ woo ci soog a àggale bismillah bismillah Pape Mahi Diop salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw maa ngi nuyu ñëpp ki nekk ci plateau bi jërëjëf euh, monsieur le directeur Pape Mahi Diop jërëjëf yàlla yàlla na mu ziar bu wax monsieur directeur taalibe sëriñ Samba Tamba monsieur la taalibe sëriñ Moussa Massamba moo moo moo gën a moo moo gën a war directeur gën a war ministre waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni wàcce leen ñi seen wàccuwaay bismillah waaw euh, li tax waaw boobu ba léegi maa ngi seetaan émission bi ndeysaan di sant yàlla di sant yéen seen kalaaw sam kat seen tuba ndeysaan li ngeen def nii man hmm. ngeen ko defal ndeysaan di rafetlu liñ ci wax man nag amul suñ sooma tambat ndax suñ boobu daf maa dimbale hmm. li tax ma dugg seen show dafa am lu ma bëgg leeral mooy aéroport ma nekk ak fu ma nekkul hmm. ñëpp xam na ma sama dëgg sëñ sooma sàmm ndax kenn boolewuma kenn ëndu ma ci kenn ëndu ko ci man loolu mbiru Sëriñ Tuubaa la. ndeysaan. moo tax bés bii di suñu bés di nga dëkk ancien ministre dëkk ancien président ancien député. waaye mhm. ancien taal bi doo ko dëkk. dëgg la. waaye sëñ Moustapha Massam moo dañ may ràññee ci talbe Sëriñ Tuubaa. ndeysaan. man maa lay war a fay. Mm-hmm. maa war a génn sama alal def fay ko ci Touba TV. ndeysaan. ndax jëmm gi mu jëmmal sëñ Sooba Sam Mbàkke ci suñu bët bi. ndeysaan. di sant ñëpp. maa ngi dégg waxu si Ousseyn Mbàkke. di ko rafetlu. ndeysaan. te xam ne amuñu luñ suñu bët bi. bët mu nag bokk ma ci délégation gouvernement damaa bokk ci ñuy teral euh, délégation gouvernement donc délégation bi ñëw maa ndax dama cee war a teew def bay sama mhm. bismillah bismillah jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape Mayel am taxawaay lool euh, ci bis bi euh, wax nga dëgg euh, taalibeeb Serigne Touba taalibeeb Serigne Touba moo gën a wóor lépp moo maître ma di keñang kenn mënut a tudd jàmbaar yi te duñu leen tudd ñoom ñooy dalal gan yi ñooy dalal administration bi yëpp ca bis ba ànd koog mbooleem njabootu sëñ Massamba gépp jërëjëf li nga wax am na solo euh, taalibe bi sëñ Tuubaa rek moo gën a wóor lépp waaye alayhi salaatu wassalaam dafa wax ci xaddis ni na ngeen wàcce nit ñi seen wàccuwaay looloo wàccuwaay wu nit am rek dees na ko jox ndax kenn joxul boppam dara yàlla moo ràng nit ñi lépp sëñ Oys bismillah ñoo ngi sant euh, Serigne Pape moomu di ko xam ne mën naa ne ba may gone gu ndaw a ndaw a ndaw eh, laa ko xam ci kër gi moo waajuram soxna Famay Fall Diop ñu doon ñu ràññiku ci kër gi ba ni mu demee jàngi Canada at yu yàgg yàgg laay nekk nag ba ñibbisi lu yàgg yàgg ba liggéey Sonatel bokk ci kilifa ya lu yàgg yàgg ba jóge ca ba def mm, partenariat liggéey ak ay tubaab ak ay ñu ne bari ci société yu bari jiite ko ba fii ko saa borom kii yàlla na yàlla guddalu fanam sàmm ko te dolli koy xéewal gis nañu it taxawaayam bu baax a baax ci bis bi bis bi set mi ngi woote di ki def ay teraanga yu bare bare bare bëgg dara du manqué ñu ngi koy sant bu baax dafa am mbokkum teel bi mu sàkk woon ci ne seex yi fi sëriñ Massamba bàyyi woon muy ñu ko doon tër bi yooyu naa ko lim mm-hmm. waaye dafa bari ndax lu mat deux cent quarante ngi nii ma tiim yoo xam ne euh, ku ci ne ak dëkk bi nga féete woon bu ñu ko waxee dafay dafa du ma ko man dafa yàgg da nga ci dégg ñëpp nag sant wu ne maam yi ku ne dana ci nekk dañoo dafa yaatu <laughs> loolu du ma ko mën a lim wax dëgg mu ko bëggee nag ma lim ko mu ngeen sëñ Massamba defar na deux cent sëñ Massamba li mu defar ëpp na loolu mm-hmm. seex boo déggee ay mooy ñi nga xam ne dañoo ñëwoon sàkku si ngërëm mm-hmm. ci sa daara ba nga yeewi leen ñu dem feneen di defaree Serigne Touba dafa am ko ko mas a wax ne sama soxna ni dafa faatu mm-hmm. bu defee na day sàkku ñaan mu tàmmul ñaan ko waaye nag gërëm naa ko lool gërëm naa ko lool rafet naa ci moom njort mu ne ko yow nag ku la gërëm mu ne teg mu ne ko ah, waaw looloo ca mat xam de bu fekkee daal ku baax la gërëm ku baax gërëm ko ku baax gërëm ko bët junni yi ñëpp am nañ gërëmul ku baax waaye nag bu leen fàtte ne monsieur garam gërëm na madame ba tey ñoom ñaar ñu ànd dem sawara koo xam ne gërëm nañ la nag te ki gërëm ki ko gërëm di ku mat a joxe ngërëm <laughs> ngërëm yooyee moom boo ko doon topp seex ba ci yow mii ñu gërëm la sëb sër gërëmaat am nga ngërëm lu wér la ñooñu nag ay junni lañu waaye ñu nekkoon ci daara yi takk seen digg daal laa wax di ànd ak moom ci yitte yi ñooñu moom ay uuri uur la waaye yiñ ci jot a daal laa wax di ay mag ñoo xam ne ku ci ne sëy sa mag mag mi di wax yow loolu du jar lim tabeem gi danaa ci wax ñaari baat rek Sëriñ waa mas na ko ba mu ñëw mu ne ko ndaxam masamba gën maa tabe day ak yàq la masam masamba gën maa tabe ak yàq la waaye na gannaaw noonu def nañ la ngay béytu maalub yoon wi ndax lu ne mënta ñàkk béytu maal béytu maal mooy ci tubaab bi ngeen koy waxee de euh, mooy luy fonctionner lu ne rek na ñàkk budget maanaam euh, caisse de fonctionnement kon def nañu la loo am rek nga def ko ci fu fuñ ko soxlaa rek looloo tax euh, looloo tax mu tab gi ëppoon waaw noonu daal la demee muy daal wax dëgg yàlla euh, ku doy waar tukki boobu mu daan tukki mhm. daanaka dañ ko daan wax terrasse ak njàmbur ak tawa terrasse ak kajoor gi ak terrasse ak soowu jant ak terrasse jolof ak terrasse ak saalum mhm. sëriñ Masamba de yi dem këram fekk ko fa kenn mënu ko waaye boo ko fa fekkee soxla soo am mu faju loolu la mag ñëpp daan wax kenn mënu ko fekk loolu saa bu ne ñetti weer lay def ñëw defaat ñetti weer ñëw defaat ñetti weer trace yooyu noonu la ko daan defee ngir xër rek ci ram mu bindee fi mhm. waaye ku bëgg a jàll l'émission bi sëriñ bi mhm. dee su ko fakkasal ci baatin dee su ko laaj lu mu xamut mhm. loo xam ne si bu la ko wanee nga jébbalu dana la ko woon ak lu mën a doon bu la ko defalee nga jébbalu dana la ko defal ak lu mën a doon koo xam ne gis na la nga àgg ca nga war a doon ne sus ci sëñ ba di ko jàppale dana la loqar ci lonkan la lonkan la ba yóbbal déposé la fa sëñ bi kon ne war ay tukkeem loolu daal moo doon ay mbiram. barakallah sëñ Awee si waxtu solo. dafa mel ni moo ñu dab am nañ yéene sax buñ ci doon nga nga nga àggale ndax sëñ Massamba géej la du jeex. jërëjëf sant nañ doo fi nekkoon ba suba tamit. du tax jikkoy sëñ Massamba jeex ay xar baax am jeex. wallaahi mu mel ni Alaaji Samba jaw euh, moom la ñuy jox kàddu gi ñu ngi ziare bu baax euh, soxna na bu seen di suñu wëllëree di sëtub ma Massamba ak soxna Bintu seen soxna Fat Bintu seen ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu jotaay bi di suñu wëllëre di sët ci soxna Astu Mbàkke moom Cheikh Massamba euh, alaaj Samba Diaw mu mel ni taalibey Sëriñ ma sàmba yépp am na nu ñu war a takkoowaat nag wax ni am na nu ñu war a waajewaat màggal gi lan nga ñuy indil ci loolu jërëjëf mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax leen ziyaare leen balwaq leen balaq di njëkk ci sunu nuyoo ku tedd ki Cheikh Sidi Muxtaar xalif général di mu mu yàgg fi lool lool te wér lool noonu yi dañ koy ñaanale sëñ Moustapha Massamba ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ndax xam ngeen ne sëñ Moustapha moom ba ca sëñ du May ba fi mu tond ku nekk liggéeyal na la dañuy seet ne rek mën nga ne jàpp rek ne xilaafa gi moo ko yore woon ndax ku ci nekk liggéeyal na la ab soldaar la woon rek mu takku ndiggam kon lii wàcc ci koom yal na yàgg ci moom amiin taalibe bi nag moo koy wax ndax taalibe bi mooy ki nga xam ne moo nekk ci gàdd gi te juddoo wu ci ki juddoo ci gàdd gi laa wax te dum naar moo xam lépp te sëñ Tuubaa nag taalibe yi la fonk lool taalibe yi la kennal lool ba ci Cheikh Massamba mi ñuy waxtaane ñu ngi siyaar ñëpp di ko ñaanal mu yàgg fi te wér loolu ko ñaanal doyul ñu ngi safa noonu lay wàcce ba ci rakkam ji sëñ Maam Moor di ku baax koo xam ne ku tegtalu ñun ñii maanaam taalibe bu suufe lanu bu woyof lanu waaye fu kàddoo ci lii nga xam ne dañ koy def ci diwaan bi ak ci Sénégal lépp ci murit gi daf may wax ne moom ñu ngi lay ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay bàyyi xel ci rajo bi ñu ngi lay bàyyi xel ci télévision bi kon kooku mënuñu ko fay kon kooku exemple la mu féete nag sëñ Moustapha foo xam ne macha allah yéen féetuwu waaye tey di xaritu ñëpp nag sëñ Abdou Kawi Habir muy caat ña ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér lool ña ko ñaanal mu wér di rendre hommage nag moo ko jëlee ci sëñ Modou Mbaye ci sëñ Abdou Baaxe jaar ci jigéenam yu baax yooyee nga xam nañoo ñoo nekk ci diggante bi soxna Bintu soxna Astu soxna Isa jigéenam yooyu yu baaxam yooyu te jóge fi yal na yàlla séral ñun fi mu nekk. amiin amiin seen yax bu baax a baax a baax baax te taas leen ca yéege leen ca maanaam yu gën a kowe muy àjjana ya. amiin ngi siyaar ñëpp. ki nga xam ne moo jiite jataay bii suñu wees moo ko nuyoo nuyu naa ñu fi nekk ñëpp damay wàcc ci plateau bi moo rek moom nuyu naa ñu fi nekk ñëpp bu mu nuyoo soxna waalo nuyu naa soxna yi di ci wàcce nañ ci taalibe yi taalibe yi dama ci yëkkati kenn muy ci Mbàkke yu fay maanaam fii ma nekk di wax li ma nekk fii rek la ci ndakaaru moo tax ma jël parole bi nii waaye bu doon bu doon bu doon Touba am na taalib bu magum taalib bu ko jël bu doon Korox am na magum taalib bu ko jël bu doon Thiès am na magum bu doon Louga bu doon Ndar bu doon fépp rek ci réew mi am na magum taalib yoo xam ne mooy jël kàddu gi kon nag ci seenu kàddu laay waxe du yomb waaye wax ci sëñ sàmb nag moom ak dugg ci organisation yomb na kon Alaaji Mbakk Fay taalibu sëñ Massamba bi taalibu sëñ Maamoor ña ngi koy sant bu baax di ko nuyu bu ma wàcce naa nuyoo bi ci Cheikh Balla Samb mi nga xam ne moo yilif rajo bi ak télévision bi wàcce ko ba ci aali mi aali wañ mi nga xam ne tey te ñun ñëpp ñu koy jaale doomam jooju fi jóge doomu samwañ ji fi jóge te ñu yendu fa ñun ñëpp ñu nga fa woon alaaji mbakk yu nga fa woon ñëpp nga fa woon ñu koy jaale bu baax a baax ci turu njabootu sëñ Masamba gépp ndax aliwañ ñoo mbakk yu lu du ñaar kenn lan mm. kon lu wàcc koom rek wàcc na ci kaw taali bi yëpp di taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak man nii Mbaye Ndiaye sànnoo si xam nañ ko sëñ maam Mor di jëwrinam lool bala ñi ànd ak bala ñig sëñ Umar ñuur xam nga ko tey jii te am lu ko gàllankoor waaye fii ma toog nii moo fi waroon a toog mm-hmm. di su xarit lool di kenn ci këru sëñ Moustapha Massamba ci taalibe yi wax na léegi. moom dugg si na di jàmbaar. Mhm. loolu sëñ bi sëñ woy si wax na ko moom tamit ci bis bi mu ci jàpp bu baax li man ak li mënul lépp Pape Mayel lañ koy def sëñ ma dikke ñang taalibe sëñ ma sàmbi moom boon ci doon wax lu jeex mhm. maanaam lii ñuy liggéey lépp lépp di ko dox dañuy ànd di ko dox ci comité d'organisation bi ñu nekk ndakaaru ñu ngi koy dox ak ci senegal yépp ak bitim réew kon ñu ngi koy nuyu bu baax moom tamit sëñ Pape Ndiaye Samba Ndiaye ak daayira yi daayira yi sëñ Moustapha yi ñoom ñëpp buñ ko tuddee tudd na ñëpp alaaj jogomaay jaw di kenn ci taalibi sëñ Maam Moor yi yaakaar naa ne ñi gën a ñi njëkk ci maam sëñ maam def naa ne ca la bokk di ku baax ku am solo Alaaji Mbay Sarr Sénégal Tour moom tamit mu ñuy topp ci lii émission bi ma ngi koy seetaan ak njabootam te jàpp na ci bis bi ku baax Aly Ngouille Ndiaye danaa ci ndir si tamit taalibe sëñ Moustapha la waaye ma ngi doxal leneen ci gouvernement bi ñun ci taalibi gi la tudd ndax ñëpp yëngutu ci rek comme ni ma ci yëngutoo li ci ñëpp di yëngutu waaw waa Thiès yëpp ñu ngi may woo ku mel ne Pape Diop Thiès ma ngay ñaar ñoom ñëpp ñu gis téléphone bi di woote maanaam taalis bi sëñ Samba sëñ Massamba yi jël jël jàpp Tëngéej jàpp Thiès Kaolack ci Sénégal gépp fi nekk ñu ngi suivre émission bi. waaw. di sant ñëpp léegi bu ma delsee ci ci taalibe yi xam ngeen ne daaru karim lañuy defee màggal gi auzu billaahi mina sheytaani rajiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu sëriñ Cheikh moom sëriñ Mahmadan bismillaah mbokki mbokki jullit noo ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay mbàkke di leen sant bu baax di gërëm ñooñu nekk ci plateau bi di leen sant ndax doxin yi ak seeni doxin seeni wax ak seeni jëf dafa ànd ndax ñi nga xam ne ñoo fi toog ci sët yi li ñu war a taxawee ci bis bi taxaw nañ ko ba mu mat sëkk ñi nga xam ne ñoo fi toog di jëwriñ mel ne sëñ Samba ak sëñ Mbaye Ndiaye euh, seen taxawaay moom it taxaw nañ ko ba mat sëkk ba tax na loolu ñu di leen ci gërëm bu baax di gërëm kii jiite jataay bi itam muy Cheikh Anta Samb di jigéen ñi fi nekk ñëpp di njaboot Cheikh Massamba di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ñuy rafetlu yëpp jotaay bi fa tabarakallahu ndax gis nañu ne euh, lépp lu ñu war a xamle ci sëriñ Masamba fa tabarakallahu xamle ngeen ko li ci sëñ Uway su wax doy na sëkk li ci sëñ Saam wax doy na sëkk mboolem ñi ci intervenir ñépp daal seen i taxawaay ak seen doxin lépp rafet na fa tabarakallahu ci turu comité d'organisation bi laa leen di nuyoo ci leen ci sant en njiit ci liggéey boobu di ko rafetlu bu baax fa tabarakallahu leen xamal ne taxawaay yi ak doxin yëpp itam sëriñ Moustapha dégg na ko ndax tey ma nga yendu daaru karim wala fanaan biig sañ ci kër toog fa di leen nekk kon fa tabaarakallaahu ngeen xam ne lépp lu ngeen nekk moom yëg ko te moom ngeen fa nekkal fa tabaarakallaahu moom ak rakkam ju baax ji muy sëriñ Maamoor Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwrinam moom it yàlla dogal mu am taxawaay bu rafet boo xam ne bii fa tabarakallahu nun ñi nga xam ne nooy ndaw yi mhm. di leen rafet rafetlu nañ ko bu baax a baax sëriñ ma sàmba bi nga xam ne moom bis bi nag mhm. ak bis bi ñu koy wutal ak fañ ko koy wutale dafa fekkoon amutoon benn béréb li ñu ko waxee daaru karim rek la ma saan mooy daaru karim bii ba tey ci ndigalu Sëriñ Tuubaa la ko amee woon te dafa bàyyi woon lépp lu mu jàppoon nekk ak Sëriñ Tuubaa bi nga xamee ne yàlla dogal na ci njaareem mu woo leen nag moom sëñ Modou Moustapha sëñ Fallu sëriñ Massamba ni leen na ngeen ñëw dem Tuubaa jiitu ji ma fa te nekkal ma fa bu ngeen demee nag ba toog kenn ku nekk na wut béréb boo xam ne bii dana fa dem di fa liggéey ndax liggéey mënta ñàkk ci la bokk sëñ Fallou ñëw toog dem wuti ndindi sëñ Modou Moustapha jóge fa dem tindóodi muy ay toolam sëñ Massamba yow it demal Daaru Karim euh, ma fekk la fa ñoom ñëpp kenn ku nekk loolu nga nekkoon diir bi nga ci nekk li nga ci war a doxe ak na nga ci war a taxawe def nga ko ba mu mat fekk tuubaat booba ñoom rek ñoo fi nekkoon sëriñ ma sàmbaat yàlla dogal digganteem ak ñooñu daani ci mën nañu ay seex lañu rek ndax koo xam ne yaa ngi gane àdduna 1893 ñu sees gane àdduna 1888 seen waajur la waaye magewu leen dara sëriñ Tuubaa boole leen bépp itam nag lu mu daa def lu muy def lu ne day wax Moustapha Fallou Massamba defal leen ma nangam noonu mu leen boolee woon ba tabarakallahu moo ko may cër yi mu amoon moom sëñ Massamba doon rakki sëriñ Touba waaye doon taalibu sëriñ Touba waaye doon itam ah, koo xam ne moo ko jur buy bu jugum ndax sëriñ Touba moo ko tudd moo ko àkkal aw tur ci lu histoire fa tabaaraka Allaah ñëpp xam nañ ko dellu dellu si mm-hmm. ah, moo ko jàngee te jàngal alquran itam fa tabaaraka Allaah wax ngeen ko léegi moo moo moo moo moo ko moo ko tërbiye itam gannaaw bi mu ko joxee sëñ Daam Abdourahman mu jàngal Alquran jóge fa dem ci maam Thierno jóge fa dem ci Mbàkke Buso dafa dellu si waat moom mu tërbiye nag ba lépp loo xam ne lu ñuy def ci ab taalibe def nañ ko ci moom loolu am na ku ko wax léegi ci Thièyeen fa lañu àndoon ñëw wax leen seen wax ju histoire jooju nga xam ne kenn du ko fàtte ba tey hmm. ne leen kenn ku nekk mu laaj sa alluwa fa nga toll ñu leen joxee alluwa yi mu xool ñu waxee fañ toll yëpp ba noppi mu xool ko ne leen doy na sëkk fa tabarakallahu li ci des nag dem jëfee rek ka ci des dama leen di xamal ne fii nag du ma bàyyi kenn du ma magi kenn du ma nijaayi kenn li fi nekk day jaay rek képp koo jënd yaa ko moom kon nag da ngeen ba ba ba am ko ñoom ñëpp ñu daal di joxe seen bopp foofe jébbali ci ko seen bopp topp ko di ko lu mu digle ñu def lu mu tere ñu bàyyi lii ci la sax ba ñu war a dellu siwaat ba ñu bëgg a dellu mu ne ma sàmba toogal yow ma sàmba fa la toog ci moom fekk na ba ñu njëkk dem gànnaar ànd na ak moom ba nekk gànnaar lu yàgg a yàgg tabarakallah bi ñu del ci yéen it mu téyewaat ko lu yàgg nga xam ne mënta tàqalikoo ak moom ba foofee la ko yebal tukki boobu ñu doon wax ci biir réew mi diir boobu la ko dox lu baree bari ci la ko dox lam ca dox lu baree bari la fa tabarakallah ba lu bari dolliku na ci yoon bi ni ko suñu waris waxe léegi ak kenn ku ne mën na ci jariñu fa tabarakallah yàlla dogal na nag moom yi mu làmboo yi mu làmboo woon mooy yi mooy xam-xam ak ragal yàlla ak gëm sëñ Tuuba ak bëgg ko ak topp ko ba jeex lépp jeexal ko ci moom fa tabarakallahu hmm. doon na koo xam ne bu sëriñ ci masaa di wax moom rek lay woo ana ma sàmba mu ñëw mu def sama yi muy def tomb ya muy def yëpp ne ko leeral ko leeral ko leeral ko bind si na kàpp bu mu wax ko nam ko doon waxe xar fan bi xar sëñ bi si ñëng dara ba mu sotti kenn ku nekk mën a dem jëriñoo ko ndax sëriñ bi wóor na ne xaalam ak ni ko suñ borom bind xëy ba bi mu am mm-hmm. moo tax buy wax kenn du ko mën a dégg doo ko mën a xam sax ma sàmba mi nga xam ne nit la nag moom te war te te te te mën a leeral bu noppee moom dana xam lépp ba noppi nag leeral ko ba ñëpp mën cee jot loolu mooy li nga xam ne fa la sëñ sëñ ma sàmba nekkoon sëñ ma sàmba nag yàlla dogal na ci xikma yooyu daana ci leeral lu baree baree baree bare mm-hmm. bokk na ci yii may wax yu néew la ndox du ma mën a jël lépp waxtu bi dafa day wax ne man uftiya arbaan laa yu xaramu arbaan man uftiya sukkur lam yu xaramil masjid ndax la in sakartum la azidannakum ku ñu jox ñeent day duñ la xañ ñeent ku ñu jox nga sant duñ la xañ ndollam ndax la in laa la si bu ngeen sante ma dool leen man man yal istighfar lam yuhramil maxrifa maxfira ndax istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara koo xam ne jox nañ la ak jéggulu duñ la xañ jéggal ndax na ngeen jéggul seen boroom dagam ba ngeen nekk suñ borom dina leen jéggal dagam nekk ngeen di jéggalaat man uxtiya tawba lam yuxram il qabuul koo xam ne kii may na mu tuub kenn mën koo xañ ñu nangul ko ndax wa huwa yaqbalu tawba an ibaadihi wa man uxtiya duaa lam yuxram il ijaaba ndax ba'duhu ni astajib lakum kon yooyu ci xikma yi nga xam ne Sëriñ Tuuba daana ko faral di jëfandikoo la bëri yu bëree bëree bëri daana wax itam ne ah, dafa bokk da yàlla dafa dogaloon muy ko fonkoon xam ba nga xam ne xam-xam tax na Sëriñ Tuuba liggéey loo ko ko doon liggéey loo muy lu bëree bëri waaw hmm. ah, xëy na xëy na waxtu wi na waaye lii rek laa ci wax ci wàllu xam-xam ni nga xam ne ko jàpp woon moom ne rawaate gi ji bi nekkul ci dara lu ci xam-xam ak ci diine waxlam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu tasbira hmm. wa bihima yufaddilu man qad fadala la biltisaabihi liman ixtala liman qad ixtala kon loolu mooy li nga xam ne mhm. mooy mooy li sukkandikoo woon ba sëriñ bi ko ci lépp wóolu ko ci xasida yi waaye yooni wóoru ko ci lépp lu muy def lu xam gu mu xam ak topp gu mu ko topp ak gëm gu mu ko gëm loolu moo doon lu jëm loolu nag liñ ci mën a jëriñoo nun taalibe yi du dara lu dul roy jikkoom yooyee rek fu mu bëgg woon Serigne Touba ni mu tonkoo islam ni am woon diine ni mu tabee woon ni mu baaxe woon bëggutoon dara lu sëriñ Serigne Touba amutoon dara lu dul Serigne Touba bu ko mësaa wax loo bëgg ma mu ne ko foo tege tànk ma teg ko sama tànk daf koo njëkk ne li yow rek mu ne ko loolu faat na ma sàmm waaye dañ la may foo tegee tuut nga teg fa sa te loolu wóor na ne may na ko ko tey fa tabaarakallaahu xëy na waxtu wi xat na ah li ñu ciy seere rek mooy hmm. ni mu defoon Serigne Touba noonu la defoon sëriñ Modou Moustapha noonu la defoon Serigne Fallilou hmm. waaye noonu la defoon sëñ maam maam Cheikh Anta mi nga xam ne moo doon kilifaam hmm. rawaate na maam Cheikh mi nga xam ne moo doon seen kilifa la gisee jàpp la rek jàppewu la mag waaye jàppe na la ab sëriñ fa tabarakallahu gëm la topp la te dina déglu te nangu laa liggéeyal yii daal mooy ma Cheikh Massamba jikko yu baax yi nga xam ne moom la làmboo woon képp ku dib taalibeem foofu nga war a nekk jërëjëf lépp lu ñuy def ku la ci am na man daaru karim gee ñu ko fas yéenee màggale dara nekk fa ab àll rek la waaye nag sëppee bi ñu am ngir xam ne la nga xam ne bëggalu ko woon boppam waaye noonu ni di ay sëtam danañ ko ko bëggal mooy defal ko penc defal ko mbool defal ko fa lépp euh, ne fa ñëpp daje ci fa ñu di fa daje di fa màggale waxtaane loolu mooy noo ko ko bëggal ko tabax baaxu nangu gëm na ko nangul ndax dem bi mu dem sañ ci ñaari fan yi bu ko nekk fa jubluwu ca dara lu wan nu ne li ngeen di dox ak li ngeen di def lu ma neex la lu ma sat la te maa ngi leen ci gërëm te leen ci sant jërëjëf kon fa tabarakallahu ñuy ñaan taali bi bis bii ne fu la fekk na nga bàyyi la leen na nga bàyyi fa nga nekkoon na nga bàyyi na nga nekkoon wuy si sëriñ bi ci deeru karim lu mu metti metti lu mu ànd ànd na ko ñëpp toog yandu fa fanaan ba ci suba sëriñ bi ñaanal leen ñu yeewul lii mooy ndigal daale bi amul lu dul ndigal duñ ci ñàkk sant nag ñi nga xam ne dañ di jàpp ci bis bi bu baax lu mhm. sëñ ma dikkee ñàkk ko tàmbalee yàgg na bañ dalee def bis bi ba léegi day wax luy dig fee di ma def di dox ko mu def buñ ci mën a ñàkk tudd ko mel a fas mayeen mi dugg léegi moom it am na taxawaay bu rafet boo xam ne ñu ngi koy def luñ ci mën a ñàkk tudd itam sëñ Baye Sarr mi nga xam ne yàlla dogal na tabaaraka tabaarakallaahu moom itam noonu lay def lii ñu soxla ñu ngi ci jàpp ñu dox ñu leen di gërëm ci sant sëñ Màkki yu fay nag mi nga xam ne yàlla dogal na moom itam télé bi moo ko moom waaye ni ma ko waxee woon amul programme bu sëñ ma sàmba ay soxlaa bu sëñ ma sàmba soxlaa day day a ci programme a nga soxla sëñ ma sàmba jeex mu a delluwaat ci programme dëgg la bu wér nañu ko yàlla fayal amiin te liggéey bi muy liggéey sëriñ Touba ci Ndakaaru amiin doy ko wóolu ko ci yàlla ko suñu borom defal ndam ak mboolem ñi koy jàppale ñëpp defal mboolem technicien yi ak mboolem matériel bi yàlla defal ñu xéewal ak mucc yàlla mën na ko mamaatalika àllahi bi asis wasalaamu aleykum wa wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne waaye nag euh, waxtu wi sori na Serigne Samba euh, day dikk ci programme mu màggal gi ci Daaru Karim soñu taalibe yi Serigne Sam mën a tëj rek ndax euh, waxtu wi jege na te dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci liggéey bi xaaj jibril ndaw sëriñ mbàkke mboobu sëriñ mañang ñun ñëpp gaañ yi ñun ñëpp euh, yaakaar naan du ñu doyal ci sëriñ masamba ndax xam nañ ni kuy bëgg bëggu kuy wut bëggu sëriñ mbàkke yu fay da nga koy jaar ci sëriñ masamba alaaji cheikh balla samb mi ngi ànd ak ñun jotaay bi di kenn koo xam ne waxtu nekk euh, barab bii moom la ko sëriñ bi dénk li sëriñ cheikh wax ci maam cerno ibrahima fati sëriñ masamba ku ne xamoon na du daan dugg daarul moxti nam daan nangule maam cerno di tamit loolu la ñuy defal euh, samak du nelawee moo leen ko defal def fa juróom benn weer ci Daaru euh, lijjanti jigéen ñi lijjanti ñëpp daal di delluwaat ci këram Touba kooku mooy ma sàmba déggoo woon ak ay doomi baayam déggoo woon ak seexi Serigne Touba yi déggoo woon ak njaboot gi déggoo woon ak ñëpp kon bismillah sëriñ Samba nga tënkal ñu ci jërëjëf organisation bi ak Daaru jërëjëf euh, sunu xol sedd na guy ndax maanaam sëñ Cheikh mi nga xam ne xam nga ne mooy porte-parole bi moo liggéey bi mm-hmm. ban commencé liggéey bi nekk ci réew mi nekk fii ci ndakaaru te sëñ Axma jiite ko ñëw fii ci ndakaaru mu yebal ko fi sëñ Cheikh fu mu fu saa su nekk mag ngi ma ngi nuy nemmeeku bërki démb rek lanu nekk ci kër alaaji mbakk yu fay mu woote fa woo ma sama téléphone di ma laaj liggéey bi fu mu toll kon xam nga ne sëñ Cheikh kenn mënu ko fay hmm. ba tey gis ngeen intervention bi mu def dafa daanale ci ci taalibe yi ndigal li ndigal li sëñ Moustapha joxe ne ñëpp ñëpp nanu màggal si eh, daaru karim daaru karim nag nee na leen dara nekku fa kon ñun taalibe yi kenn wërta des sëñ sëñ Masamba nag moom moom wàcc na ñun ñoo des sëñ Masamba wàcc na ñun ñoo des te loolu bu ma koy wax génnewuma ci nag benn taalibe benn jullit génnewu ko ci ndax kër taalibe boo dem fekk nga fa sëñ Masamba fekk nga fa xasidaam yi war nga faa fekk tabam gi war ngaa faa fekk jikko yu baax yëpp yi sëñ Masamba lango boo ko boo demee ci këru taalibe murid saadix war ko faa fekk surtout xasidaam yi kon dañuy wax ne waa kër sëñ ma Masamba ñoo woote waaye taalibe yëpp leen woo murit yépp leen woo image yi koo gis gis daara jën fa def ak lan xam ne nësër nañ ko ci daaru karim ñëpp war takk waat nekk say nekk ci gannaaw sëñ bi sëñ bi moom fi ñu toll ma ngi daaru karim kon kenn wartu tudd seblal mu nooy nepp te ngay xalaat sëñ ma sàmba fi ñu toll kon taalibe yëpp ñu leen wax ñu takku te bu nuy dem tamit na sëñ ma sàmb daan waaje rek nan ko def suñ lépp sëñ ma sàmb bu daan jóg lépp may mat fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu gane rek foofa neex na kon Daaru Karim war naa nekk ab village planétaire boo xam ne boo moo dafay dafay neex lool ci bisu 24 bi bisu 23 bi parce que 23 bi sax ci la conférence bi bi nekk di ci woo taalibe yëpp waaye di ci gën a appeler les pouvoirs publics def nañ CRD mu dem ba ci gouverneur waaye kër sëñ Massamba du kër gu ndaw kër sëñ Touba la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te li nga xam ne mooy mesure yi mu jël mesure d'accompagnement yi nga xam ne taalibe yi dañ dem ci bis bi ñu ànd ceeg ñoom. bu bu dara waru faa manqué. taalibe sax moom dana matal seen wet waaye li nga xam ne ñoom ñoo ko war a def li nga xam ne citoyen bi war na ko am loolu yëpp la leen ci interpellé di ci waa président de la république ñu xam ne fii kër Masamba ma Masamba gi mooy kër sëñ Matu sëñ sëñ Touba te ku ko am am nga leen waaye ku ko ñàkk tamit ñàkk nga réew mépp ña koy wax ca kaw. nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi koy sant li tax ñu koy sant mooy moom day mbirum courant ba ma ngi ciy ma ngi ciy ma ngi ciy góorgóorlu waaye taalibi ci kër gi la loolu yi duñ ko duñ ko wuutaleeg li nga xam ne moom la yore ci état ba ña ngi ko ciy encouragé bu baax a baax ndax bu ca continuer foofee dana baax waaye ñeneen ñi nga xam ne ministère yi nga xam ne am nañ ca ab cër. waxuma la ci màggal gi màggal gi waxuñu ko ci daaru karim lan wax ñoom ñëpp nañ ko ca def ndax taalibe yi ñoom ñu ngi yore seen bët di xool te taalibe yi tamit bàyyiwul seen bopp man na lépp waaye danoo xam ne nag ci réew mi la dëkk te am fi wàll loolu rek la waaye sëñ Moustapha moom mooy suñuy lool te sëñ Moustapha loxoom bi du ko tàll kenn sëñ Touba ak ma Massamba rek la koy tàllal waaye nag ñun nag daaru Karim nag ñi fi nekk ak taalib man na doon ministre de l'intérieur ñoo koy wax ne ko dox nañ ko kii ne ko recevoir nu nanu recevoir ñu waxtaan ak moom li war a waxtaan ndax xët màggal gii dañ koo ubbi pour ñëpp jariñu ci loolu dem ba ci premier ministre dem ba ci président de la république président de la république fi ñu toll màggaluk sëñ Massamba dafa war a recevoir délégation officielle bu ñëw ci palais ba loolu loolu mooy mbir mi sëñ Massamba dimension am dimension am passé na Sénégal sëñ Massamba mooy sëñ Touba buñ koy defal bis bu mel nii war naa président de la république sëñ Cheikh moo war a jiitu ànd ak ñi mu war a àndal président de la république dalal leen waxtaan ak ñoom. waaye diñ boole kun nu boole sax dana dem. mooy bu xeebuñu kenn parce que autorité administrative autorité administrative la su préfet bi sax buñ na ko booleel da li ñu bëgg doona ko am parce que bàyyi wul suñu bopp waaye nag wàccukaayu sëñ Massamba président de la république war na cee dugal loxoom. jërëjëf jërëjëf Alaaji Samba Diaw mu mel ni euh, kuy wax euh, loo gëm euh, doy na keman doo mel ni Serigne Massamba Ngook ñu ngi nuyu baax Serigne Cheikh moom Sëñ Abdou Salaam moom Cheikh Massamba di suñu xarit. mu mel ni li nga wax ci Serigne Moustapha mooy rajaw jannati bi la taati bi sunnatil maahi xururul yatti teraangay àdduna ku ko bëgg Serigne Touba nee na da ngay nangoo liggéey waaye àjjanay ëllëg ku ko bëgg da ngay nangoo jaamu yàlla Serigne Touba dafa waxoon ci middam ni du ma tàllal sama loxo ku dul yàlla kon dafa mel ni njabootu sëriñ ma Massamba wala kii fi nekkal ma Massamba ni mu mel loolu la ak faati ma Massamba yëpp mel waaye loolu la euh, euh, njabootu Serigne Massamba gépp mel mooy liggéey ak jaamu yàlla euh, gis naa ci benn mbind benn borom xam mu ni su bëggee xam boppam na nangoo liggéey nit du bëggee moom boppam na nangoo liggéey liggéey mooy ba balaa nit a mën a téye ngoram da koy nangoo def Serigne Sam waxtu wi daal waxtu wee ñu dab euh, lan ngay tëjee Cheikh Massamba su ko defee Serigne Ibrahima Gueye le coordonnateur infatigable su ko defee mën a mën a mën a mën a mën a mën a tëj jotaay bi mën a sànni ay kàddu ci turu euh, comité d'organisation bi turu kilifa kilifaam yi suñu kilifa yi Serigne Sam la ba di jàmbaar itam ñu yàgg daje fu nekk. muy wane liggéey bi ma Massamba ndax Serigne Touba ku ci ku ci bokk zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu Serigne Moussa Salih ah, damay dégg ma koy fireen am solo nee na nekkul ni ku sant santu Serigne Touba bii képp ku nekk ci li nga war a nekk nekkal barab Serigne di ko liggéeyal bul génn sa bopp ca zuriya kon nag Serigne Sam liggéey bi ngay liggéey à travers le monde entier ñu ngi la ci sant di la gërëm di jaare bu baax Serigne Khadim Mbacke moom itam nekk ca consulat bu New York Mor moom Serigne Massamba di ziare bu baax soxna maam jaaram Serigne Modou Faty Khary moom itam nekk foofa di jàmbaar lool di fa liggéey ñu fay taxawal nag màggaluk Serigne Massamba niñ koy taxawalee ci diaspora bi fépp ci Afrique gépp ndax ma Massamba foo wàcc ci réew mi foo wàcc ci bitim réew danga ko fekk daayira bi sëñ Massamba boo xam ne benn daayira du ko ëpp te kenn du leen ëpp pas-pas sëñ Touba kenn du leen ëpp àddee ci sëñ Touba kon sëñ ma Massamba li ko sëñ Touba faye yaakaar naa ne soo ñëwee ci réew mi danga ko gis soo génnee bitim réew da nga ko gis Serigne Sam bismillah ndeysaan tabarkalla Seydina tabarkalla kenn mënu laa dog waaye xayrul ngi sant bu baax ci kilifa yi nga xam ne intervenir nañ ci antenne bi yëpp. sëñ Cheikh moom sëñ Mahmoudan di suñu mag ñu rafet lu taxawaayam te di ko ñaanal suñu borom dëgëral ko ak sëriñ Maxtaar mu sëñ Mamor Euh, yeneen bokki taalibe yi jaar ci yëpp ci antenne bi ak sëñ Samba Diaw ci kàddu yi nga xam ne kàddu yu soññee la yoo xam ne waxal na ko ñun ñëpp ndax ñun ñëpp ay taalibe lañ fi ñuy jeexale rek ci lu gàtt dafa am lu nu sëñ Tuubaa tànnal mm-hmm. ne nu def leen ko fu ngeen jëmati def leen ko seen wàccaay mm-hmm. loolu nag ñett la mm-hmm. ñett yooyu nag sëñ Masamba da caa raw sëñ Tuubaa dafa wax ne ñett laa leen tànnal muy seen wàccaay xam-xam bu wér te sell teggin yu mat sëkk ak jëfe xam-xam te yàlla tax jamaalukum ilmun wa saayun wa adab fa laazimuha yukfa ankumul wadab ñett yooyu sëñ Masamba da cee raw te cheikhi sëñ Tuubaa yi ñoo seere loolu kenn ci cheikhi sëñ Tuubaa yi di Cheikh Ibrahima Diop almashar yi nga xam ne li mu bind mhm. waxuma la yoonu murit waaye àdduna bi boo ko jàngee amul ku mën a bind lu ko kawe ci xam-xam da xam ni kii borom xam-xam la bu bàyyi woon lépp topp sëñ Tuubaa waa mu defar ko seexal ko kooku moo wax ni ñi ñuy tagg ci xam-xam sëñ Masamba ci raw faaqal afadila ahlal juudi wal karami Masamba Mbakke kasirul almi wal xikami loolu doy na sëkk te it dañuy wax ne rien n'est plus dangereux que l'action dans l'ignorance xam jëf ju teguwul ci xam jéemoo xam dara tey jëf lu gën a dangereux looloo gën a dangereux Serigne Touba nag li ko yàlla dimbalee mooy programme bi ma la waxoon mooy dafa fexe ba ñi ko topp ñëpp mu teg leen ci siraatal mustaqim ñu ràññee xam fi ñu teg seen tànk Serigne Massamba xam-xam boobu da caa rawoon ba ca topp mooy jëfe xam-xam jëfe xam-xam bi moo tax mu doon murid saadix Cheikh Ibrahima Diop moomu dafa waxaat ne Cheikh Massamba dafa mel ne weer woo xam ne dafa toll ci fukki fan ak ñeent nga xam ne guddi bu bu sa sax nga mën koo for nee na sëñ Masamba noonu lay leerale àdduna ci xam-xamam zaahir ak baatin waaye nee na ku bëgg doon murid saadix Cheikh Ibrahima Diop wax de Cheikhub sëñ tubaa nee na ku bëgg doon murid saadix man Ibrahima Diop tegtal naa la Masamba Cheikh Masamba doy na référence yow badrun munirun jawaadun faiqun alamun xudwatu kulli muridin saadiqin fahimi foofu doy naa yem ci xam-xam ak jëfe ndax jëfe gee tax mu doon murid saadix ana lu mu ko jural mooy lan fees dell ci biir ak ci biti di jariñ ñëpp te amu ci xaj ak seen doomi Serigne Touba ji Cheikh Mahamadul Fadal moo seede wax ne bu bët yëpp xonqee xel yëpp ci kan lay dem mooy Cheikh Massamba te nag ku ñëw nag dana la xett li ci saayir xett la ci baatin te xàmmewu ci ki ko jege ak xaj bi ak ki ko sori Massamba kaana mufiidal mufiidi wa munjil mustaxisi isaama naasu xat xaxatu dem ba ci biir nag muy wax ne laa bay ne zawi qurba wa man shaxatu sëñ Masamba nee na buy jariñ nit ci saa zahir mbaa ci baatin xamul xejjam ak ki mi doo gis lu jafe ñoom la te ca la raw ñëpp kon kii àdduna da koo soxla fii ñu toll li àdduna soxla te mu yàq àdduna fi mu ne contraire bi ñu soxla ko mooy individualisme bopp sa bopp loola ca biti la jógee ñëw na ba màbb dal ci suñu kaw sëñ Masamba moom dafa jëloon jëmmam jox ko ñëpp suñ Fallou ko seere ci loolu ci wàllu ndax àdduna bi faaw équilibre mën a am jàmm mën a am bu équilibre mën amul rek jàmm dana jafe sëñ Masamba li ñuy wax régulateur social piir te ñu koy wax ci jamono ji ñu bari di ko tudd moom ba mu koy doon booba baat boobu ñu bari xamaguñ ko danaa wax ne sunu borom li mu yor lépp bu ma ko joxoon danaa ko séddale jaamu yàlla yépp ba ku ne da nga am lu la doy gis-gis boobu defe naa foofu la équilibre mën a yem danaan wax ne itam nit ñi li ñu yor moomuñu ko lu ci ya waaye yor te yàlla yàllaa la ko jox te ba mu la koy jox joxu la ko ngir sa bopp rek da la koo jox ngir nga jaruñu ci waaye nga séddale ko ñeneen. Hmm. gis-gis bu am solo ngi noonu te àdduna soxla na ko fi ñu toll. muy solidarité bu wér a wér a wér àdduna ji nga xam ne nag. wax nga dëgg de. yàgg naa war ku ne muy alalam ci pouvoir ci leneen sëñ Massamba dafa am lu mu ko gisee woon ci lu gàtt ndax dañuy wax ne xikam yi ko yàlla defaloon moom sëñ Massamba dafa jéggi dayoo. li mu bind ci ay wax yu gàtt te am njariñ kenn xamul nu mu toll. daa waxoon ne àdduna ab jant la alaaxiraay sanc ba ab jant nag ku xel doo ko fàggul dara ku xel ku ne sanc ba koy fàggul man ma sàmba nag fas naa yéene lu ma am sanc ba laa koy fàggul te bu ëllëgee maag yéen a koy bokk kon kooku mooy seex Cheikh Massamba doy na sëkk référence nañu ko jàngataat jamono soxla na ko uh-huh. ci yëpp lu ñuy tudd ci jamono rek ne àdduna soxla na ko sëñ Massamba da caa rawoon ñëpp kon ñu ngi wàcc kàddu yi foofu di bàllu ñëpp ak tey baal ñëpp ak tey ñaan suñu borom doo la ñu dimbale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. baarakallah sëriñ bi ni ngay euh, waxee am na solo lool ndax sëriñ Touba moo ni liñ may donne du du lenn lu dul bi xidmatil quraani wal xadiis sama orita sama héritage daal mooy xam-xam ak alquran mooy sama héritage man Cheikhul Khadim te euh, képp kuy xeex Serigne Touba dañuy jihaat naa ci xam-xam ak ragal yàlla kon wane Serigne Touba li ci gën a rafet mooy ci xam-xam ndax Serigne bee raw ñëpp. ci lépp euh, soxna maam fàttiloo euh, nga tàggoo ci deux minutes rek ndax ñun ñu waxtu yu daw da dab nañu te moom day conférencière bu mag di sëtub Cheikh Massamba sëtub ma sàmba nag war naa am xam-xam ndax Serigne Touba ku mën a xam ay waxam. yaakaar naa ni ku sotti ci yow war nga war nga war nga mën a am xam-xam sëñ Massamba mi mën a dégg waxi sëñ tubaa man koo bindaat man koo maas ba murid yëpp war koo jariñoo li sëñ ma Mahamadan moom sëñ Abdoulaat wax nee na murid yëpp amel njukkal sëñ Massamba ndax xasida yi moo defar ñëpp te xasida yi li tax ñu mën koo jàng mooy ma Massamba kon li sëriñ Moulay bu sa wax sëriñ su ni ëllëg sëriñ Touba dina xool ñëpp waaye tànn sëñ ma sàmba puukare woo ko tiitaroo ko yaakaar naa ni murid yëpp tamit dañ tànn sëñ ma sàmba tiitaroo ko ndax kum seqal sëñ morom sali gërëm nga ko sëriñ Tuubaa mii waajuram dib sëriñam bii léppam gërëm na ko soxna maam fàttiloo bismillah waa jërëjëf sëñ Seex Anta maa ngi rafetluwaat kàddu yi fi jaaraat yëpp ak ñi nga xam ne dugg nañ fi rawatina suñu way jur sëñ Seex moom sëriñ mu Mahmoudan di rafetlu ab taxawaayam waa di présenté waale rek soxna Njóobaloo di doomi soxna muslim moom sëñ max dan moom itamit mi ngi ci jataay bi xam naa sëñ Seex Anta man li ma waajaloon ngir participer ko ci waxtaan wi bari na ndax bëggoon na ma dugg ci diggante sëñ Masamba ak xasida yi am na it yeneen i point yu ma bëggoon a dugg waaye ginnaaw waxtu wi mat na dañ koy leb rek ba suba ci 18h30 bañ dem Lamp Fall incha allah dinañ ko fa gën a yaatal ñaanalaat rek suñu maam sëñ mu Moustapha mu sëriñ Massamba nga xam ne sagub yoonu murit la ci noonu nga ko waxee nooy jaamu yàlla ak liggéey rek ci lañ ko xam suñ borom yàggal ko fi wéral ko waaye tamit nga may ma rek ma ñaanal sama wajur wu góor wi nga xam ne moo ma boole ci Seex Massamba sëñ Modou Mamoun loo doonoon borom xam-xam doonoon nitu yàlla wàkk sëñ Massamba bàyyi woon ko xel ba commission culturelle bi biñ koy sos moom lañ ci jiitaloon waaye 2002 biñ tàmbalee màggal gi ci la ko màggal 2003 2004 mu jóge fi kon maa ngi koy ñaanal bu baax suñu borom yokk ay leeram te barzakul muhammadiya waaye tamit ni laa koy ñaanale sama way wayjur Serigne Cheikh moom Serigne Modou Faty Khary suñu borom yàggal ko fi moom tamit wéral ko muy ku am taxawaay doon nu sëñ Masamba ci tab doon nu ko it ci nangoo joxew ñam nga xam ne ku ñëw këram wala nga ñëw kër sëñ Abdou Baax xam ne sëñ Masamba ankati ko sëñ Masamba yañ daan wax ñi xamut ñoo defee ne lekk ñuy sant si seeg jaxate lañ koy tudde waaye mën a joxew ñam ci waxtu wum jafe woon moo tax ñu tudde ko woon tudde ko ko noonu la ñaanale it sama weneen way jur bàyyi seexloo aloki nga xam ne moom tamit téere sëñ Masamba bii nga xam ne ñu bari ci lañuy tegtaloo moo ñu ko moo ñu ko liggéeyal dajale ay way yu baree bari ak seede yuñ ci yuñ def ci sëñ Masamba bañ man cee jariñu ñu ngi ko ñaanal suñ boroom yokk ay leeram waaw eh, damay nettali rek benn xissa boo xam ne ci lay tëje uh-huh. eh, mooy sëñ Masamba ci dégg gi mu déggoon sëñ Touba ak man gi mënoon a xam waxi sëriñ bi am na bis boo xam ne sëriñ bi wax nañ ne da doon waxtaan ak fere yi di tomb tombam yooyu mu daan tomb fere yi nag booba sëñ Masamba ci la bokkoon waaye moom doomu nekku fa woon waaye wax nañ ne bi sëriñ bi di wax saxaar gi da doon riir ba dégguñu li sëriñ bi di wax nee ni sëriñ bi gestu sëñ ma Masamba ne ko ma sàmba lool yi di riir lu mu doon sëñ Masamba ne ko ah, Mbàkke lool de saxaar gi la sëñ Tuubaa ne ko Masamba demal indil ma saxaar gi sëñ Masamba jóg ab diir mu dellu si ñàkk tooy ngir na ñemewut wute bañ a jëfe ndigalu sëriñ bi te xam na ne saxaar du lu ñuy jël di ko indi. ndeysaan. mu ne ko Massamba ana la ma la yónni woon. na ko àmbaake ah, saxaar da day loo xam ne dañ koo teg ci yoon woo xam ne ci lay jaar te du ko wàcc li fi yëg aggut fam jëm te du jàdd suñ tubaab xam nga xakkim la woon mën a jàngale daan na ko Masamba noonu yi saxaar def rek ni la buñ la yabalee ci aw yoon buñ la yabalee ci dëkk teg la ci yoon lu mu yàgg-yàgg bul wàcc bul jàdd boo jàddul wàcc wala di nga àgg yàlla na tege ca yoon wa te àgg bañ jàdd bañ a wàcc wasalaamaaleykum wa rahmatulah baarakallah soxna maam fàttiloo di conférencière bu mag di borom xam-xam ñi ngi fàttali népp ni kuréelu sëti ma Massamba yëpp ñoo conférence bi ñuy def euh, conférence sëti Serigne Massamba yi le 23 la ca Daaru Karim dañ ko tudd nag ren Serigne Fallou Mbacke borom dindi euh, ñun ci woo waa kër sëti Serigne Fallou yëpp Euh, euh, conférence bi nga xam ne sëpp sëriñ ma Massamba yi moom la ñuy def dañ ko tudde sëriñ Fallou mu ngi ziare bu baax alaaji Mbàkke yu fay mu ngi ànd ak ñun jotaay bi di wax ni képp koo xamee ni dugg nga kër sëriñ Massamba rek dañ ko fekk alaaji Mbàkke yu wala soo toogee tuuti mu fekk la fa di ziare Pape Mayel Diop itam di jëwriñ ci kër sëriñ Moustapha am sëriñ Massamba taxawaayam léegi la koy sëriñ Uway su di leeral maître ma dikka ñang waaye fàttewun njabootuk alaaji Ndama Fall euh, sëriñ Mbay Sarr Sénécartour ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu sëriñ Modou Fall soxna Maguette Mbàkke moom sëriñ Modou Fati Xari di nuyu baax Serigne Maam Cheikh Fall ak Serigne Ousseynou ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare Serigne euh, Ibrahima Diop euh, Ibrahima Gueye Lamp Fall le coordonnateur Baye Fallou Cheikh Moustapha am ma Massamba bisimilah yan kàddu ngay tëjee jotaay bi ndax jotaay bi yàgg na lool waaye lu yàgg ci ma Massamba rek xéewal gën a wàcc teraanga gën a wàcc sutura gën a wàcc bisimilah. bisimilah rahmaani rahim alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salaatu sitta bi madaxi sitta taati ihibaata ma axati saay ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp nuyu bu tedd di nuyu bu lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullah di jiital nag ci nuyoo bi Serigne Cheikh Sidil Muxtaar xadim général kullu murid di ñaan sunu borom guddal aw fanam te wéral ko te kàttanaa ko te ak yéenam ci darajay lislaam waaye di ñaanal baax sëriñ Moustapha Mbacke xalifatu Cheikh Massamba Mbacke di ñaan sunu borom gën ko fa yàggal te gën koo dolli ak wér ba mboolem lim yéene liggéeyal Cheikh Massamba ci lislaam lépp mu àggale ko te ànd kook dongo yi te ñaan suma dafa ko ci li ko wépp njort Euh, di nuyu baax nag jëwriñam di sëriñ Mamour moom Cheikh Massamba mi nga xam ne mooy jëwriñam di nuyu nag bu baax a baax Serigne Cheikh moom Serigne Mahmadou mi nga xam ne moo yor kàddu njabootu waaye di nuyu sunu jëwriñu di Serigne Ahmadou Mbacké moom Serigne Moustapha moom Cheikh Massamba euh, di nuyu nag bu baax Serigne Uweysu Mbacké moom sëriñ Moustapha Massamba mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi day mel ni bu ñu ko nuyoo rek nuyoo nañu mboolem njabootu Cheikh Massamba góor gi fi teew yépp waaye tam di nuyu baax sëriñ euh, soxna wàllu mbakki moom sëriñ Mahmoudan nga xam ne am nuyoon dañ ci sof mboolem njabootu ma Massamba ko jigéen fi teew yépp ak mboolem ñuy topp jotaay bi fu ñu mën a nekk ci biir ak bitim réew li ko waral nag ay taxawaayam ndax jotaay bii bi mu ko yëgee fa saasa ni mu ko defee woon daaw rek noonu la ko defee ci yitte dafa ma xamal ne lépp luñ fi yittewoo ci wàllu kafe ak yu muy àndal def naa ko muy sama liggéey kon lu mel noonu bu amee ci teewaay bokk yi dana baax ñu seere ko mm. waaye bu ñu waxee soxna waalo moom sëriñ Mahmoudan faw dinañ tudd soxna Nene Gaye moom soxna Bintu moom Cheikh Massamba ndax jotaay bi ci waxtu bi daaw ci ñaari fan lañ ko waajal waaye daf ma xamal ne lépp lu jëm ci wàllu ndox ma ñu fay naan ak lañ fay jëfandikoo ci aw ñam maa ko féetewoo te noonu la ko defee ren te kon lu mel noonu bu amee daaw amaat ren it dana yore ñu seere ko hmm. waaye dama koy faral di wax ne am na ci loo xam ne bu amee ña cee war a jëf sëñ bi moo koy def ci xelu ñi ngi koy ñi ngi koy taxawuloo ne ko boo woyee di wàllu sàngam dana ko mën a farewoo kon loolu rek ci am waaye jotaay biir dañuy ñaan suñu borom taw fii xeluñu ba ñu mën koo jariñoo ndax Serigne Cheikh mu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te wér daam bis ñuy def ab waxtaan ci Serigne Saliou bi jotaay bi waaj a tàmbali mu yabal ay ndaw na boo demee neel fere yi jotaay bi nañ fexe ba jéem koo jariñoo te bañ koo barkeeloo muy lu am solo kon jotaay bi nañ ko bañ def jotaay barkeelu te jéem koo def jotaay boo xam dañ koy jéem a jariñoo euh, dafay mel ni lii matoon a wax ci ma Massamba suñu kilifa yu baax yu tedd yi ak ñi doon taxawee jotaay bi day mel ni seera <coughs> li ci sëñ Cheikh yi wax doy na sëkk euh, li ci sëñ Maxtaar moom sëñ Mamar